yi xam nañ ko mooy ñu compal la encore buuñaa moo fi dul am yow sénégalais yi duñ la dul defaral buuñaa yow ku la defaral buuñaa yàlla bindal ko baakaar borom du tab du laa lay wan nii du xoolal siraatal mustaqim du ko gis sax du ko gis sax ba di ko séen dañ la ne nga dem lan mooy sa problème man dama lay laaj lan mooy sa problème yow nga ne sa ndey gor la sa sa baay di gor sa ñaari côté yëpp waajur yi yëpp ay gor lañ ñaari gor ñoo suq jur la yow nga ñetteel leen. sénégalais yëkkati la ci situation boo xamante ne que ne yow da doon jooy nga ne injustice lañ la teg ñi yëkkati seen yéene mooy maanaam lu gën a kawe ndaxte après fauteuil président amul boobu amul beneen fauteuil daraja bi nekk ci kaw loolu yow yàlla lépp la la defaral macha allah jaarale ko ci sénégalais yi nga toroxal nii. nga dóor nga tëj boo déglu le récit de tous ces les les les les différentes détenus politiques yi nga xamante ne ñoom nga jàpp muy ay ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi ku ci nekk bu le bu génnee bu ŋaangee rek nga fàttee ba sëkkale da ngay naa ne ñi njëkk a wax ñooñu métti ci loolu koo ci déglu rek da ngay naan non non ba su kii méttiwu koo ci déglu rek di nga mujjee bàyyi ba su kooku nga demaat encore ci keneen sa jëf yi bon na fi jaaj nuñ naa la bëre bëre nday ñaw merci beaucoup pompel leen ma kër ngir yàlla ñu ngi sabatu direct bi please ñu ngi sabatu direct bi jëtëndi ni koo ci déglu sa yaram bi mooy rafi-rafi ça te coupe même l'appétit nga xool les tranches ba si les les la là dans les départements yi maa ngi suivre actualité comme ni ma koy waxee man bàyyi naa comme mu njëkk ba parce que naa dépassé loolu defe naa ne léegi ancien combattant la ci biir langue bi ma bàyyi les nouvelle tête la ñiy génn ni di pirim pirim di pàcc pàcc mel ni xam nga bu tawee xaw ma da yéen a ngi ko bu tawee dafa am ay sorte de gunóor la comme genre gunóor yi la nii boo leen gisee da nga leen di gis bu làmp bi takkee nii ñu fay bëri nawet rek nga leen di gis il se multiplie nawet guddi ba guddi da nga leen di gis i i i sali partout yéen a ngi dëgg comme ñooñu la moo tax ma leen di bàyyi ma bàyyi leen géew bi <laughs> Mariama Anne mu ne je suis pour une heure de temps <laughs> tu peux pas être sérieux dans dans les directs avec ces Amazon wallahi Amazon yi amu leen fenn barke yàlla yéen boo leen amutoon leen di inventé Mariama Anne kan moo la pini maa du sama sama goro bi <laughs> liggéey ba la non <laughs> non non non non non ah ah Ada di Jammeh merci beaucoup Matikan merci ah dugalal leen ma kër yi s'il vous plaît Maysa Maysa Gueye nuy naa la le grand révolutionnaire nuy naa la bu bëree bëree Bella <laughs> eh, si yàllaa be wallaay dama ne Abacar nee na dañ ko pini pour une heure de xaw ma lan la def est que mettre ñu ko si au coin hmm? non leen rek sentiment bobu la am ah mu ne Marc la restreint ah Badara sali ngay content ngay content na sali ku nankol ngay kontoon ah détenu bu guen sa yaram bi day daw parmi les détenus to Ahmed Tamet amna ci ay écho yo xamante ne à 100% mais damay bay noonu parce que maa ngi déglu détenu yi di leen déglu di leen déglu man nag dama di nit koo xamante ne que ne man boo ma feneen lay benn yoon yow mënatoo wax dara ci kaw suuf luy tax man ma gëmaat la man noonu laa mel that's my philosophie yéen a ngi understand am sorry mais loolu that's my philosophie man boo ma feneen benn yoon yaa ngi dëgg man mënuma supporter nit koo xamante ne que ne is liar comme ni ko néerlandais di ko naka nekk noonu looy kanaar man nit kooku dama ko ragal human liar man nit kooku dama ko ragal doomi aadama boo xamante ne fenkat nga human liar dama la ragal man dama lay ragal man fen rek la sama rab yi di bañ man bu ma jox dara mais quand on est ensemble sois franc avec moi comme je le suis avec toi man boo ma xasee boo xasee fet benn yoon ba ma dem ma détecté ma xam ni que ne yow because yow wuma liar nga wala man liar nga man moom jeex na comme ni ko néerlandais yi di ko doxee ok mu frow like naar wala di man like naar dama lay bàyyi man mu mënatoo wax dara lu ma mën a convaincre te dama fay ci dama dama fort ci weñ bay këni ci biir détenu yi nga xamante que ne am nañ ko am na détenu jigéen boo xamante que ne paraît que son arrestation moom c'est volontaire su ma su ma sañee wax sax que ni il paraît même que ni c'est comme si c'est elle-même qui a sollicité pour être arrêtée pour être pour ñu mun ko mettre sous le feu de la pro protection pour ñu mën a wax ci moom je ne sais pas sur quel but ban but la am naa ci nag sama analyse je ne vais pas jusqu'au bout parce que man je je trouve que ni jaru ko quoi. parce que dafa amone Macky Sall la ñi nek biir Sénégal sa mëna comprendre mais képp ko xamanteni que té de l'extérieur té en dehors té hors d'état du Sénégal amna na xamanteni que mëno ko fowé kasso kaso nit war ko mëna fowé war ko mëna fowé da ngay déglu le récit tu sens très bien que y a quelque chose qui sonne faux qui qui n'est pas clair kisima sila, Il a fait mon effort en français. Tu veux qu'on parle quoi en français ici Je m'adresse déjà aux Sénégalais. Fais l'effort aussi de parler un peu parce que ton nom de famille, c'est celui-là. Hein Hein Donc, amène euh, Aminata Gay, thank you so much. OK Parce que moi, je ne suis pas dupe. Mariama Anne, tu comprendre parce que toi, tu travailles, tu travailles dans ton domaine, tu sais de quoi je parle. booy liggéey ak doomi aadama you understand me da ngay da ngay da ngay da nga koy da nga koy gis because le face you speak le doomi aadama bi day wax yéen nga understand dafa am yoo xamante ne que ni boo dégloo le récit des gens tu sens très bien que y a quelque chose oh my goodness da ngay munuma j'ai commencé voilà merci beaucoup thank you so much am love you wallaay Mariam Anne ah, parce que yow da ngay gis tout de suite tu comprends jarul ñu lay orienté très tu comprends vite fait da ngay capter nit ay nit yi nekk biir Sénégal encore ok c'est normal ndaxte Macky Sall lay obsédé mu am ay seeni groupe yi ñu mettre en place te groupe WhatsApp yi ak ñoomi seen man dama leen alerté woon dama alerté woon parti rooti ne leen nekk ni faites très attention génn leen te balaa may wax ak yéen ñi nekk ci biir sax ñi patriot yi président Ousmane Sonko laa njëkk a lancé message ne ko ni prési génneen ci groupe whatsapp yi ne respecté lay groupe whatsapp bul nangu ñu yóbbu sa benn audio bul nangu ñi bind bul bindante message ak kenn ñi nga bokkal ci coalition yi Askan Wi bu ci wóolu kenn ñi lay woo téléphone sax yaa ngi dëgg man dem na ba woo ay nit dans l'entourage de tonton de de de de de du président Ousmane Sonko ma ne leen def leen tout le président Ousmane Sonko léegi bu toogee bu ko bu bu nit wootee nit ñi jaa bëgg koo passe téléphone bi pour moom mu mun a pour mun a créer une sorte de lien fekk ñu ngi koy enregistré de l'autre côté na ko moytu ndaxte scénario boobu yëpp jaar na fii ma gis ko. ay nit yi toog di jéem a def di ne dañuy live ils ont une sorte de rapproche avec le président Ousmane Sonko di jouer du genre or que ils sont passés par un raccourci man man maay dem toog ak prési may ma ma wax ak moom nga wooma ma passe la prési nga def di genre que ni nga enregistré en même temps cet appel la nga génn ñëw teg ko si sa biir laay wala ngay nga def di genre loolu yëpp gis nañ ko fii man loolu yëpp ça m'a appris nee naa leen nag vétéran laa ci guerre bi nag je suis là depuis 2017 boobu ñu bëri ci yéen amoo leen woon téléphone portable ba ngeen di am connexion sa internet au Sénégal ma toog may Ousmane Sonko. mais idéologie bii idéologie Pastef mais les uns et les autres la composition de cette partie là de pasteur, ma musuma suis ñeente intéressé intéressant, li jëntew ma suis sax ma am respect nak, ci cadre yi ba keroog bi ma woné nekk rek ñoom dañ ma xeeb ma yab leen fa la problème bi nak les cadres de pasteur ils m'ont sous-estimé et moi de de de retour je les ai c o l l é s ma i s j e l e s multiplier l e s par les t u x mais caca que je laisse sama sama sama samay toilette man noonu laa mel man boo ma xeebee ma yab la boo ma boo ma sawee ma day la m a s noonu laay mel man fu ma nit teg s rek t e s naa la fu fu t e s naa la fu gën e kawe foofu moo xam ci côté positif la moo la côté négatif la I don't care man loolu fokkin deewam ma ko fenn fi ma toog laa toog ndaxte doow ma Dramane mu ne Dramane mu ma fontoo mun ma fonto ok Dramane Dramane ok amul benn problème yéen a dëgg ma ne leen daw leen njëttali yooyu ñi ci bëri am na ñoo xamante ne ci dañ leen doon signalé ci ay groupe groupe yi messenger yi euh, whatsapp yi te waxoon naa leen ma ne leen faites attention vous êtes infiltré def leen attention ñi ngi jël seen i numéro téléphone di ko joxe ma ne leen ñi nga xamante ne que ils ont affiché leur numéro téléphone sur leur page de Facebook ba pare ñu continuer di def parce que Facebook da lay naan nga def sa numéro téléphone en au mais numéro téléphone bi dafa am foo xamante ne ci paramétrage yi foo xamante ne que nga koo def le numéro téléphone nga def ko pour rien que ni yow rek ko mën a gis ak Facebook keneen mënu koo gis pour ñu bañ jël say sa numéro téléphone bi di ko jël di ko joxe di ko joxe au niveau yàlla nga understand loolu yëpp wax naa leen ko fii comment faire pour pouvoir échapper à tout ça mais dangay wax ñu foog ne que tu parles pour euh, je ne sais même pas jëkki saay xoolal ñi may xool ce combat là le combat là actuellement mu neex nit mu naqari nit man Fatou kenn mënu ma ciy génnee te kooleel ma mu sonn jëndee ci kaw ci combat bi ngeen ñëkkati ko rek sama kaw yàlla il faut mu wàccee ko mu takkal ko suuf. man moom fi ma taxaw laa taxaw rek mun naa dem comme ni may demee nii ay semaine ma ñëwaat nekk ci samay affaire nekk ci leneen parce que dama xam ne que fi ma leen bàyyoon su ma demoon tamit un mois wala deux mois su ma dellu soité naa leen fekkaat foofu doo leen bouger loolu esprit sénégalais la bi ma demee ba ma nand leen ma comprendre leen cerner la compo le comportement des sénégalais la philosophie mentale des sénégalais man dama xam bi ma xamee loolu laa ne que bu njëkk ba j'avais du mal à vous cerner

du ma param-param du ma nekk di tëb du ma dëgg tël ma ne damm na maa ngi toog jël sama time may analyser di xool di def le pour et le contre di bàyyi nag nopp di analyser nag waaw di analyser di xool détails yi gën a anodin sax du ma koy bàyyi je regarde tout lépp laay xool dama koy ausculter mel ni un un généraliste face à son un patient Oubeyine Bassène dama leen di ausculter wallaay Mamadou Kanté de 2017 à maintenant defe naa nekk ne léegi bu dee retraite la dee fu mu nekk ni waa Pastef fi waroon nañ ma commencé duma ma verser nag retraite je dois aller en retraite moo tax bu ma gisee les nouveautés là les nouveaux visages là ku nekk di ñëw xam nga fu mu nekk nii tout le monde ba ñëpp bëgg nañ bokk loolu moo nekkoon man moo nekkoon sama philosophie bi te loolu laa bëggoon loolu laa mettre en place bi may doon jaay ndaxte ju laa dama jaayoon pour ñëpp ñëw bokk pour ñëpp ñëw pour lii nii xew nii mu am mais ci biir loolu tamit dama xam comportement sénégalais que ne ñi ay workat lañu bu bees mooy am ñu fàtte bu bu màgget bi mais ak bu màggetam ndaxte man may musique boo xamante ne que man du ma xewi saa buñ saa boo ma buñ ma tegee ci rajo wala ñu teg ma ci télé. di nga di nga di nga jël sa temps di nga marqué temps d'arrêt nga nga nga sa xel bi dina am fu mu lay yóbbu di nga rétrogradé waat dina am fu mu lay yóbbu na te fondation laa maa téye kër ci fondation laa de maa téye kër ci te mosoo gis fenn fu li kër ji di am problème problème problème problème nga gis ku ñemee ne ne que ne day gas pour dem génnee benn brique di rocc benn brique ci fondation ci brique fondation bi doo ko mos a gis mun nga toj génnee benn brique pla yi nekk ci kaw Eh, eh, eh, kër yi nekk ci kaw mais fon brique fondation kenn mu soo gis benn benn benn borom kër mu tabax këram ba pare mu dem muy muy rocc ay brique fondation nee na koy xool non non yi nekk ci kaw kay lay laal mais du fondation bi donc man fondation laa mu neex nit mu naqari nit fondation laa li ma def ci combat bi man yàlla na ma ko yàlla na ma ko yàlla delloo waaw te bi ma koy def. ci xol bu rafet la ko defé te ci xol bu rafet lay continuer diko defé and ak sama mbolo bi nga xamante ne dañ ma bëgg te yalla tax di ci jappalé te yalla tax te gëm li nga xamante ne loolu lay woté suma né Ousmane Sonko dama ka bëgg ma gëm projet bi noonu la fa démé man neew ma len Ousmane moma bëgg dama len né man ma bëgg Ousmane Sonko bëggal ko sama bop bëgg projet bi parce que l'aboutissement de ce projet là xamna naa bu mu len mëna indi sénégalais du ñun ñun ñuy lekk suñu suñu suñu xaaf suñu xaaf kii bi laay bi mais yan bi ngeen xamante ne que ne eggagul suñu aas yan bi ngeen xamante ne que ne leen doom yi man sama doom yi tey mun na maa indi man mun naa sëtle fii ak ñaari ñaari ñaari weer wala ñetti weer on pa pas on sait jamais data ay góor yi ponkal laa yor sama caat 18 ans la am ah te am na gel te day coxali coxali fu mu nee nii mun na xëy rek mu dem mu indil ma fii ñuy waaxu dugg si kër gi dama yaay indil naa la sët mais yéen mi ngeen xamante ne que ne pareegu leen commencee gu leen sax ngeen di dund lu métti nekk ci dëkk boo xamante ne que ne si maara day taal du hôpital du jàng du formation du xëy du gont du dara dara dara dara dara dara amul benn benn benn benn système boo xamante ne que ne mm, du productif bu ñu mettre en place boo xamante ne que ne yéen war Fatima Ndiaye gis nuy naa la bu bëri bëri soow mati nuy naa la bu bëri bëri mu salminaam boo xamante ne mettre nañ ko en place pour yéen ngeen mun ciy gis seen bopp donc ñun bu ñu toogee fii ñi ñi jàpp ci yenn yi it's very important pour ñun ñit mën a toog ñu leen di jàppale pour yéen ngeen mun a avancer ñun li ñuy def nii dañ leen di gunge dañ leen bàyyi yéen ngeen jiitu pour ñun ñu nekk seen ginnaaw di leen gunge pour ça boo leen gëstoo ngeen gis ñu ci ginnaaw mu ngeen gën a mën a am assurance pour mën a arriver ñun loolu lañuy ñuy def naka fii nii wax dëgg yàlla buñ ci toogoon tamit ba lu yàlla def luñ ci gën tamit du ñu bàyyi ñu nëb fu mu jaar xaw ma dañuy jal dañuy làkk wala dañuy suul mais dinañ ko def ñaar yooyu foog mu am benn bu ñu ciy am. donc ba léegi on n'est pas perdant ndegam SDF bu amul sax fu muy dëkk sax mooy gaañu yi jël ko ñu jël ko en charge defar ko ba mu baax wër mbokk ba wër mbokk ba ñu gisul ñu yóbbu ko ñu dem ñu ñi ñi ñu kiyal ko ñu toppatoo ko def ko à leur façon mais du ñu bàyyi kenn mu nëb mais pour yan la yan ñun sénégalais fu ñu toog nii actuellement. ñun war nooñ war a mën a rus Macky la yaa ngi dégg mu toog ba ci moment bii suba doon le vingt cinq nit ñi heure bii tey la campagne bi waroon na tëj à minuit dëkk bi yëpp naroon na katar takar naase dernier jour de campagne Pape Malick mi loo ñaan xam ngeen dëgg-dëgg nit da koy am yaa ngi dëgg man su ma doogee fii may wax lu ñaaw yow boo may déglu na nga am noppi gar bi boo xamante ne que ne yow doo ko dëgg invité wu ma de génnal nga dem bala nga fiy ñëw dëgg lu lay naqari te bu ma nga yàqal ba sama laay you see génnal nga dem man sama doom yi bu ñu ma indiloon cinquante sët du tax ma bàyyi leen dara ñoom ñoo dem uti seen set, sët nañ ko assumer man je vais m'assumer moi moi am cinquante sët ak vingt cinq sët ci yemale ya voilà ngeen toog ba tey dernier jour de campagne Macky la bloqué leen nii donc suba les y aura même pas d'urne les urnes y aura pas d'urne doo leen voté Macky Sall toog moom xam na ni que ne pare na mu teg ko ci kaw naf sa kanam ak quelques personnes yoo xamante ni yu wayadi yi mankankunkaay yoo xamante ni xamuñu fu ñuy teg seen taat nan nang ñoo fekk si ko ci yooyu comme waa PDS yi ñoo fekk si ko ci ay ay affaire am ak ñoom Idrissa Seck ak ñoomi seen Macky ñooñu noonu ngeen gis noonu ñu doon daagu yëpp fan yi di dem di toog ak moom di saafant ñoom mooy ñi nga xamante ni que ñoo bokk ci complot Macky Sall ñu ànd ak Macky Sall la mooy maanaam pour mu pousse les gens en en euh, ak Macky Sall la pour mu pousse élection bu deux mille vingt sept deux mille vingt quatre bii pour bu suba bi ñoom ñoo ko dem wuyu ci pali bi ñoom ngeen gis ñi dugg di génn ñoo nekk doon di def seen paradis mais les veri veri ñi nga xamante ni que ne dangu ñoo dem wuyu mooy ñi nga xamante ni que ne ñooñu même bu dee ànduñu ak Ousmane Sonko mais ñi ngi taxaw ne xamal ko ni que ne moom pare na il faut mu dem Mayoro merci beaucoup ah ah bu lee bravo mami de man awma sët de exemple laa doon jox amaguma sët dapale leen ma rek yàlla buñ ma indil sët sët man taluma sët ah Macky Sall Sénégal Sénégal quatorze régions yëpp ak département yi yéen a ngi dëkk Macky Sall boo leen gisee seen i seen i boo leen nee manifestation mu bàyyi leen ngeen dem ça va dans son intérêt ba ci manifestation yi mu leen di bàyyi au Sénégal pour ngeen def ko dafa xam ne que cette manifestation là ne va aboutir à moo waral mu bàyyi leen ngeen manifester Macky bu ko leeral ne que ni boo leen génnoon. day na ci moom il aura même pas l'endroit fu fu muy dugal boppam du doon nangu ñu autoriser du leen autoriser manifestation wala boo leen génnee ngeen bëgg a forcing dina leen génneel encore même alkatem yi ñu commencé di leen dóor ay lacrymogène commencé di jàpp ay arrestation ak ñoomi seen non c'est pas grave Mayoro xam naa ne de euh, comprendre loo woon comprendre naa la mais de toute façon merci beaucoup sët moom kenn waru koo na a bañ mais amaguma sët ñu leen di nax ci ay manifestation ah ndaxte waa Pastef fii yi cadre Pastef fii nekk ci biti ñoom loolu daf leen arrangé de fu ñuy dooree lacrymogène ñoom loolu manifestation yooyu kenn du leen fa gis de les vrais feignants de cette politique là ñi nga xamante ne que la ñoo bëgg a dëpp suba ñu leen di woo ay ministre bëgg a am ay post ministre bëgg a am ay post DG ay post directeur ay poste parce que poste ci gouvernement dafa bari Sénégal li ñu ay nit ay nit gouvernement mooy defar Sénégal te gouvernement bi c' est des centaines et des centaines de têtes c' est pas seulement président ak ministre ndaxte chaque chaque ministre dafa am moom tamit pôle de de nii ñi nga xamante ne que ne ci ministère am yi nga xamante ne que ñoom la soxla pour mu ñu ñu mun ko wër pour mun a liggéey liggéey ak moom. donc c' est des centaines et des centaines de têtes léegi nag ces gens là ñi nekk nii yaa ngi dégg ku ci nekk yaa ngi jéem a xool nooy def bañ a dugg kaso. wala ñu dóor la bal lacrymogène ñi gaañ la wala ñu dóor la bal reyal ñi rey la nga ñàkk parce que ñoom ñëpp bëgg nañu doon comme bëgg ñoom ñëpp nee nañ bëgg nañu doon président bëgg nañu doon ministre bëgg nañu doon ay directeur bëgg nañu doon ay DG bëgg nañu doon lu nekk post yi baax yi nen na na ko rayaa duy naal ku nekk bëgg nga koo doon mais pour descendre sur le terrain su mu yéelema yow duñ ko def seen seen seen manifestation bii ngeen def nii ngeen di def nii taay yi ngeen di génn

le plus absolu bi nga xamantene que nous vous revient de droit les 18 millions de sénégalais mooy manam confisquer seen droit de vote ngeen tok ngeen jambar ak mom aw ngeen jaxal ak mom au vingt et siècle amul kenn ko xamantene que parmi les hommes ñi nga xamantene que ne ñoo bëgg doon président de la république ñi nga xamantene que sont prêts à aller affronter Macky Sall. Abdou Diouf tok na fi ba mu joggé fi limu ñëmé wu ta def mom ngeen nangul Macky Sall ni mais madame suba ça sera une calme plat à Dakar chacun va se lever et baguer à ses occupations il n'y a pas de urnes il n'y a pas à aller voter il n'y aura pas de président qui bi ñu war a fal suba ku nekk je ne di pas parler par la sens du poil jusqu'à présent personne n'ose porter ses couilles pour regarder question. Le droit dans les yeux ne qu'on va te faire voir, Fankou, l'eau. va te faire voir kenn ñemew a wax di raay Ryan ñenn ñi bu ñu i parle i parle maas leur mot i tourne autour du pot what the fuck what the help Libekan, maki kañ Macky mooy kan Ablaye Wade toog lu mu ñemewut a def Macky Sall nga nangul ko ko Macky Sall quoi ah. li Ablaye Wade amuton, li fi ablu Abdou Diouf amutoon ak li fi sengor amutoon ba li ngeen bañal bañal ko Abdou Diouf bañal ko Ablaye wadda nga nar ko ñoo nangul Macky Sall Macky Sall moy kan bu ngeen paré 2000 2000 deux mille bi ñu paré duggal Macky Sall suñu paré présidentiel bi dañoo yëkëti Ablaye wadd donte dafa rayon 19 personnes lañu ñu ci sen gambar bo boobu mo mak Macky Sall ñun sénégalais pour Macky Sall mëno dugg ci suñu paré boobu dañoo jaakar la Macky Ablaye wadd 19 personnes doo ci ñàkk seen i bakkan mais daa fekkoon tamit Ablaye Wade am jabar bu ko mat koo xamante ne daa nitewoon mu doon nit mu xam lan may ak ak yelleefu doomi aadama Macky lu muy def nii bu amoon jabar tubaab foofu la différence bi nekk parce que jabar tubaab il sait raisonner soo mari il sait raisonner ramener son mari à la à raison mais nit ku ñuul dafa bew nit ku ñuul dafa bëgge nit ku ñuul dafa dafa bëgg pouvoir Ablaye Wade bu mu commencé commencé commencé jabaram moo ko ne nekk ne hey dafa amoon fi affaire yi commencé mu am fa affaire yi egg nee nañ la bëggatuñ la lemal loo ci li la fi dese yi àggale ko ci jàmm ak salaam nga organiser élection yi xool ñi lem suñuy kaakee ñi dem ñu toog doy na adada abana gasi jaaka boo das finis lay Ablaye Wade rebroussé chemin mu dellu ginnaaw mais Marème Faye Sall day nekk ci coulisse yi bu jëkkëram di génn pour ñoo def sax déclaration moom mooy nekk ci ginnaaw parce que man bi ma dëggee kaw ma ki toog mu ne dossier bu ko gën a jaaxal ci biir Sénégal Mariam Faye Sall moo koy traité ma laaj ko ma ne ko xanaa ma ñun Mariam Say Faye Sall la ñuy la fal président de la République yow boo demee ba yow sa niveau de vouloir diriger ce pays là. est tellement limité que ba yow sa jabar bi nga xamante ni que ni ñun ñun faluñu ko xamuñu ko ci ndey ci baay xamuñu fan la sokkee koo par la biais de toi tey doon na suñu fausse lady par procuration parce que Marième Faye Sall sénégalais yi boo leen laajee amul benn jigéen boo xamante ne bi nekk biir Sénégal ku lay naa nekk ne Marième Faye Sall sama premier mooy suñu première dame le titre de première dame sa kenn du ko parce que titre bi mérité wu ko. taaj ko ci baax ñu wax ko lan mooy la fonction d'une première dame comment une première dame doit se comporter mu jël ko initier ko suñu biir bagages yi donc Macky bu demee ba mu toog mu ne moom les dossiers les plus inquiétants les dossiers les plus lourds dossiers yoo xamante ne que ne bu toogee taxaw tëdd juutu jaaxaan euh, moo xam dafay jonkoon bu demee ba amatul pexe Marème Faye Sall la lay woo. Une femme qui a du mal à s'exprimer en français. Une femme qui a du mal à s'exprimer en anglais. Madame Faisal ne parle aucune langue internationale. boo ko déggee rek day kii foog ñu utul ko ay traducteur ak ay traductrice ah loo ko wax mu ne la bienvenue man loolu dëgg naa ko elle s'exprime même pas on leen madame ba tey mënul accueillir aucun de ces premières dames yi comme ñoom Viviane yi lay ex première dame nekkoon biir Sénégal ni ñu ko daan defee ñuy dugalante ak yeneen première dame yi di organiser ay affaire Marème Faye Sall foo ko gis dabar baro rek la mën a waxtaanal parce que ñooñu dañuy làkk olof ak jabara embaalo kooku la mën a waxtaanal parce que kooku day làkk tuuti pël ak waaw ñooñu rek la mun a waxtaanal jabar jabar jabar euh, Alassane Dramane Ouattara sax doo leen ko gis ak ak ak Marème Faye Sall parce que amul niveau bi pour mun a toog ak kooku pour waxtaan ak moom elle n'a pas le niveau elle sait pas s'exprimer te son comportement le comportement de son mari et son comportement dafa tax sax mu am ay des femmes d'état yoo xamante ne que ne ils veulent même pas associer leur image avec l'image de Mariam Faye Sall ndaxte lu muy def moom en tant que mu soi-disant première dame bu génnee Comment ils se comportent Ces premières dames-là, les premières autres dames-là, ils ne veulent pas se mélanger. Ils comme c'est pas possible, comme un extraterrestre. Parce que elle n'est pas sainte d'esprit. Elle n'est pas sainte d'esprit. a nangu tey le 24 Macky fi mu toog Je suis ngeen pare ngeen heure bii ñëpp a kër. hala gasi mama bi ku nek di lijeenté lan ngay lek nan sa ataya to sa cigarette pajal sa gel bi wala sa sa jabar nga ya, yeewu suba dimanche la grâce matinée nga jóg comme tous les autres dimanche dal di ngeen baye sen ginnaw dal amul ne bàyyi ma dem voter ji bala ni di amu fa parce que Macky Sall nee la amo droit voter suba ndax da ko tek ci kaw naf bakkanam conseil constitutionnel nee nañ ko pare nga organiser gaaw nangul da ko bés mu ne foog ngeen ñoo ngeen toog waxtaan ak moom dafa mel ni que ne moom moom génnam Sénégal wéeru ko ci dara lu dul ñëw toog il faut bàyyi force mu toog ak mu toog ak sénégalais yi nga xamante ne ñoo bëgg ñoo gouverner Sénégal yaa ngi dëgg moom mu muy toog ah moom kenn wooto wootawul dialogue pour toog mu bëgg a génn mu bëgg a génn dëkk bi mu ne moom il faut mu woote dialogue dialogue boobu man ça va dans de kii li nga nangutoon depuis au début nga taw muy ala la dernière minute nga bëgg a kan nga bëgg a dialoguel yow bu dé sénégalais lé né nee nañ la ñu dialogue sénégalais né nañ jappal dat bu dé mëno japp dat conseil constitutionnel lañ lañ jappalo dat le 2 avril paré nga ya ka ni bu amulee peut être Macky Sall la mu bëgg may manam yeen comprendre leen kaw Macky ah. ma ne ko pour comprendre tuuti ce gars là c'est un boulimique de pouvoir c'est un boulimique de pouvoir Nous, nous donnons un boulimique criminel financier nous donnons un boulimique de pouvoir pouvoir da kaa yéeg ci bop moo tax d'olo kenn jox pouvoir ndaxte yeelaa bi le moo yeelaa doo ko mos a dëgg ci jëriñam mu génn doo ko mos a gis ci jëfam ndaxte xamu ko du lu mu lu mu du lu mu fekk ci juróom-ñaari maam yi du lu mu nàmp du lu mu fekkee te moom mooy baadoole tigi Macky Sall boo demee boo leen demee gas ba dem gas juróomi-ñaari ñàkk maamam yi nga xamante ne que ne ñoo ko jur côté ndey côté baay doo leen ci gis kenn koo xamante ne lekk na ba suur mu naan ba mandi mu tëdd ci kër bu baax yéen a nga tëdd mu ba ba Macky Sall dama doonee président ablay wad mo ñu tooñ waaw papay ablay wad mo ñu tooñ dama ma di wax ni dama bëgg ngeen deglu bu baax le comportement de Macky Sall ni tok ni lek ba pare nee du juk muy wocc ngeen koy gis dé lek du wocc di lek du wocc mais munul bay ndab bi il faut mu lek rek tant mi ngi gis lek bi moy faut mu lek mu né du juk c'est normal ba dolo oh. c'est pas pour rien que tuba bi ñom fi pour nga doon président de la république il faut nga suur il faut nga suur waaw il faut nga suur te suur bi du ci yow rek ah yamul ci yow rek dañuy dem xool ba sa juróom-ñaari maam yi yow yaay kan dañ koy dem jëlee Macky Sall la juróom-ñaari maamam yi yëpp ay baadoole la côté ndey côté baay lu ñu daan lekkee seen la leen teg fu ñu daan tëdd gis ngeen ko kër yi ñu dëkkoon gis ngeen ko. ñu jël koku jël ko tek ko ci palais bi ngeen fa ne Macky Sall dina jog nonu mu dem Macky fitna bokoy gënné ci bir ci bir palais bi Macky demut lu muy wax nonu yëpp man pare naa te wu ma tok fi nangam nangam paré nga paré woo tok fi lan moy ndayu nga paré ba paré nga né paré nga paré woo toogaat nga né yo do jog ci fa tay bi kenen tok paré na lu may def may duma jog kenen tok te ki wara a ñoo liggéey ki wara a ñoo jël sa place kooku foog mu toog nga bëgg kooku taxaw def liggéey bi nga xamante ne yow da nga toogoon di ko doon def am na yoo xamante ne dafa médecin sur Macky bu dee am na ay mbokk bu dee desee na ay mbokk côté ndey côté baay madame fay Sall bu dee am na ay mbokk côté ndey côté baay eh jàkkaarloo leen ak couple bii satanique yi ngeen wax leen dëgg bi ngeen xol leen ci biir bët wax leen dëgg bi ne leen ne baa doolay foog muy dëgg baatu yeelaa yeelaa waxuñu ko xaj waxuñu ko mbaam ñooñu sax bu ñu lekkee bu ñu suuree dañuy nekk ci leneen bàyyi ngooñ yi foofu nekk ci leneen bàyyi seen croquettes yi nekk ci leneen mais Macky mooy lekk ba pare ba ma Marième Faye Sall la ñuy lekk di woccu fu ñuy lekk noonu ci wetti ndab li noonu fu ñu toog noonu di lekk ci wetti ndab bi lañuy la ñuy wocc continuer di lekk lekk ngeen lekk lekk lekk lekk lekk lekk boobu li ngeen waroon a li ngeen waroon a li ngeen waroon a am yëpp ci Grèce feeñ na ci ci yan feeñ na ci seen njaboot yi naan ngeen ci deretu sénégalais yi fu mu nekk nii desetuñu deret ndaxte quatre-vingt-six xale deret ngeen naan ay xale yi nekk àllaaxira ngeen jël plus de deux cent xaw ma combien mutilé yi nekk ci biir kër yi am ci ay gaañu gaañu yu dul jeex loolu yëpp ci ay deret la ay xeetu deret la ngeen naan ko nga kaat encore naanaat encore énergie sénégalais yi ngeen dugal noonu ci biir kaso bi yëpp ba léegi yéen ngeen ne suur leen sans compter suñu kees suñu kees suñu kees yi ngeen vidé xaalis sénégalais yi ngeen vidé de gauche à droite ba léegi yéen suur leen ma leen di laaj yéen kan lan moo leen mën a suural ci kaw suuf lan moo leen mën a suural. lan moo leen mën a suural mbokk makki Sall lay ñoo war a jàkkaarloo ak moom ñu wax ko dëgg bi jabar ji tamit mbokk bi jàkkaarloo ak moom wax leen dëgg bi ndaxte xamoon nañ seen barki dëmb ak seen dëmb te gis nañ seen tey seen tey ji amul benn sénégalais bu bëgg a nekk seen place place Macky Sall ak jabaram bi Marième Faye Sall amul benn sénégalais bu góor wala bu jigéen bu bëgg a nekk seen place parce que seen mujj du rafet ndax seen jëf ndax seen jaar-jaar ndax li ñu ba nar a bàyyi seen ginnaaw Macky yaa xam li nga boot yaa xam li nga yenn yaa xam li nga gaddu lépp diis yow da ngaa yenn ba diis sa ginnaaw di sa ginnaaw yenn sa loxo yi yenn sa bopp bi yenn moo tax sa tànk yi mënoo koo yëkkati moo tax sa tànk yi mënoo koo yëkkati. moo tey sa tànk yi mënoo koo yëkkati fi nga toog nga toog ne bàpp nga ne doo jóg di nga jóg mu neex la bu naqari la xam nga lu tax ndaxte sénégalais fauteuil boobu fi la tegoon fauteuil la boo xamante ne xam naa ne xamuloo définition bi c'était provisoire fauteuil bu provisoire lañ la joxoon nga toog nee na la bii du musa am borom ba am ba dandaay man benn borom la am mooy peuple sénégalais te ñoom ñooy décider. ñoo ko fi teg mënoon nañ fa ñoo toog ñoom yëpp 18 millions sénégalais yi ñoo toog ci fauteuil bi mais dañoo xam ne que ne ñoom yëpp mënu ñoo xej ci biir fauteuil bi léegi dañoo waral ñoom yëpp ñu ànd defar fauteuil bi ba pare teg ko ci benn bërëg bërëg boobu ñu ne léegi dañuy xoolaat seen biir kan ci 18 millions yi kan lañ ci war xaw war a mën a wóolu même mu doon ak 80 pour cent kuñ fa mën a toog teg mu jël seeni mu jël seeni priorité def ko muy priorité bàyyi seen bàyyi bàyyi loo leen xel ci seen i santé seen wér-gi-yaram bàyyi leen bàyyi loo leen xel ci seen système de santé seen système de de de de éducatif pour seen doom yi bàyyi loo leen xel ci seen système de formation ak xëy a gontu entrepreneuriat bi bàyyi xel ci li ñuy naan bàyyi xel ci seen ressources naturelles yi defaral leen ay tali indil leen de mooy de locomotion yoo xamante ne que ne baa doola bu gën a tuuti cent francs sax mun nga koo jël foo bëgg dem ci biir Sénégal bu yóbbu la fa bi nga ñëwee BTR nga ñu fi indil boo xamante ne que ne sénégalais yi ko à cent pour bi TER nga ñu indil boo xamante ne que tubaab bi français yi ñoo ko moom ñun tali bi mu muy daw noonu rek ñoom moom rek lañ moom ndaxte recette bi c'est la France qui encaisse ñu jël seen train bi nga xamante ne que ne pare ak pare na waratul daw fii ñu jaay la ko en prix d'or comme ne ma la ko yàggee wax te stérile sur le plan intellectuel nga nangu ko nga jël train boobu indil leen ko pour sauver ñoom seen entre seen entreprise li nga créé wul ca emploi biir Sénégal moom nga créé fii France pendant ce yow sa doom yaa ngi dële sa njaboot yaa ngi dële parce que xam nga il faut qu'on se dise la vérité damay dégg gars yi di naan et xam ngeen ni que même lay Dakar dem dikk laa ñun sénégalais moom ñu ko ah les dem dikk laa les bus laa bi ngeen di gis ñii naan Dakar dem dikk ñun moomuñu ko moomuñu Dakar dem dikk sénégalais yi moomuñu ko c'est air Sénégal laa bi ñuy indil. avion Sénégal air Sénégal bu ñuy indi la recette de cette air Sénégal là ne nous appartient pas du ñu ñoo ko moom. aéroport Blaise Diagne ñi ngeen di gis nii la recette de aéroport Blaise Diagne ñi nga di gis noonu avec tous les trafics qui se passent là-bas là recette ay aéroport Blaise Diagne bi ñun moomuñu ko ñun sénégalais ñun duñ ci laal ñaar dërëm est-ce que xam ngeen loolu. un président comme ça qui a hypothéqué tout nos tout tout tout tout ce qui devait revenir aux Sénégalais de droit mu ko. ñun bii si ñu waroon a jël sax mu ñuy jëlee mu ñuy jëlee Dakar dañuy yomb ay Thiès wala Louga walla wala wala Saint-Louis wala wala Richard-Toll waree ba ba ci Rosso euh, Rosso Sénégal wala Rosso Mauritanie ñun bii si yooyu sax ndekete ñun recette bii si yooyu sax ñun moomuñu ko. damay bañ léegi di tudd tur yi léegi comme boo tuddee fii ay turu ay turu jàmm ay yi léegi dañuy dañuy bloqué laay bi dañuy dañuy censurer affaire yi <laughs> loolu tamit yëg naa ko pour sama mbokk laay bëri di laay. bàyyi leen di tudd turu turu turu turu ñu borom drapeau yooyu nga xamante ne bu weex bi la ak bu xonq bi ak bu ak bu kii bi ak bu bleu bi bëggatuñu ko tudd seen tur boo tuddee seen tur dañuy censuré dañoo génnee xaalis bu bëri pour Facebook pour loolu ndaxte nee nañ il faut ñu jóg ñun du Macky la rek moo ñuy mooy xeex ak ñun ah ñun activiste sénégalais yi nekk sur les réseaux sociaux suñu liste suñu page yi yëpp mi ngi fii ci dëkk waajooju borom borom bakkan bu gudd boobu mel ni baaram baaram baaram liir yéen a xam turam nga xamante ne que ne dañ koy lekk nee ñu ni ko naan spaghetti la beneen spaghetti bi bu gàtt bi xam ngeen ko mooy macaroni bi ak soo sauce bolognaise bi xaaral moo waxee ko loolu pour ngeen ngeen comprendre kooku tamit dafa génnee xaalis bu bëri te musoon na koo wàcc benn musoon na ko wàcc benn interview bu mu defoon nee na mënatul supporter ay activistes africains yoo xamante ne dañuy toog dans les réseaux sociaux surtout basés à à l'Europe ñuy bëgg di dénigrer dëkkam moom moom du nangu noonu waaw dina xool avec son ministre de la de de de audiovisuel visuel hein de communique ñi nga xamantene que ñoo yoré walu communication audiovisuelle bi ak ak et cetera ñu xol lan la mettre en place pour mëna a lolu parce que mënu ñoo tok fi voilà ñiy détecter tamit du xol ci ci ci ci activiste yoy yi nga xamantene que ne nañ ni son doté de la nationalité française man mom dama leen ne sa buñ ko nangone sa sama loxo sa man dérangé wu ma ndaxte yor na bu fi ba paré bu ñu nangoon bu France bi man dérange ma am naa bu fii am naa bu fii procédure bu yombee noonu France buy tax ñiy nangu ñiy nangu kayit yi kayit yi jàmbur yi fii nii fii nii procédure yu bullshit yooyu ridicule yooyu amu fi non amu fi li nga def di nga ko def boo paree bu dee yoon day dal sa kaw day dal sa kaw mais du nangu sa benn kayit Ndios Dabo jéegi merci beaucoup maa la maa la fii la ëppee maa la gën a namm naka moom naka famille bi ah Lisa Conté nuyu naa la bu bëri bëri sista gëj naa la gis Mamsour Dione merci beaucoup Mariama Anne merci Akim Daake merci ci kër yi partagez au maximum ngeen tapatal ma écran bi xam naa ne ñu ngi saboté au maximum mais euh, euh, y a pas de souci on fait avec parce que su ma coupé waat encore fii encore beneen problème la ah nañu signalé nañu signalé dañoo ñàkk job rek nañu signalé I don't care nañ signalé ñun lan lañu moom su ma déggee ay nit yu ñuy toog ñi naan non Macky Sall dafa war a pousse élection yi parce que lan mooy ndeyu mu war a pousse élection yi yaa quoi événement yi xew nii Sonko mi ngi ci biir kaso bi waxatul ñu ne bu njëkk ba Sonko mo daan génn di def des discours buy tax xale yi di génn ci sur le terrain ñuy dem di jàkkaarloo ak les forces de l'ordre Sonko il est dans en prison ça fait sept mois il parle pas te pourtant y a eu des morts derrière Sonko y a eu des manifestations derrière Sonko et ces manifestations là kan moo ko provoqué comme toujours moom la day togg ba pare mu yekk ba pare mu taxaw ci ci balcon perron perron palais présidentiel be mu ne peuple sénégalais kaay leen añ kaay leen reer bu peuple bi génnee mu ne mu ne policier bi eh, eh, eh, psychopathe bi policier yi ak gendarme mu ne leen ah, ah, mu ne leen tiire leen moo xam lacrymogène la moo xam bal bal réel la sans compter moom ay ay ay ay doome yooyu mu recruté de gauche à droite jël leen def leen des nervis mu dugal leen ci biir ñooñu tamit mu boole leen ci président boobu muy nan mom bima ko gisé mu toog mu né dafa def il a fait beaucoup pour ce pays là liguey bu rafet la fi def cohésion sociale bi ak ñoo di seen lu musuta am Sénégal mo am ba légui bu ñu démé sa ba ñi génnee ay feuilleton ci télé ay nit nit ñëmé taxaw di jouer au rôle di féewale di saga ay xét ma leen ko doon wax ci fan yele rek ga ci gëna ci samay vidéo té bima koy wax boobu fekk na seeni feuilleton boobu génnagul dama fi tudd seen tur yi di leen may ay ay ay bës gis ngeen feuilleton bi ma leen di wax nit taxaw di daanaka ne man lii laa sama xeet man du ma ngam taanu euh, euh, euh, sëya xeetu nangam loolu est-ce que bu soon na am ci Sénégal gis nañ fi façon théâtre bu nekk jaar nañ fi ñoom gol ñoom pa le feu Golbert Diagne ñoom Marie Madeleine ak ñoomi seen j'en passe ces grandes dames là

mais léegi c'est quoi Sénégal yàqu na Macky Sall nee na moom defar na Sénégal tey la caga cagatu bi gën a bëri góor yi di jaay seen bopp jigéen yi di jaay seen bopp tele boo capté waxtaan awra lañ fay wax bu ñu demee ba ñun suñu télé Sénégal léegi ay jeeg yi sangu seen biir kër ñu dégg dugal leen ci oto wala jëlal leen taxi moo xam cag-cag lañ leen jëlal indi leen ba ci biir télévision créer leen plateau dix-huit millions sénégalais toog du ñu ay gynécologue du ñu ay sage-femme du ñu ay médecin généraliste du ñu dara ils n'ont aucun métier de corps médical ñooy ñëme toog suñu plateau ci dëkk boo xamante ne que yéen da ngeen di makkoo ko ni yéen foofu la seen maam yi xaw ma lan ñu ñu naaw ci géej bi ñi doon périer ci biir géej bi ñee ñooy tuddee seen bopp yonent ñee nee nañ ñoom yonent bi ñoom ñoo jur façon bu nekk foofu ngay tëdd foofu ngay toog ngay gis ay nit di def émission te dañoo am dañoo jóge ci kër am ndey am baay facile à identifier wu ñuy waxtaanee waxu awra nan la góor ak jigéen war a tëddee waaw te moom moom moom moom moom il est la définition il est la réponse déjà balaa muy teg émission boobu buñ ko proposé woon émission boobu sax moom bu xoolee boppam rek dafa waroon a xam ne que ne moom définition boobu la parce que ndeyam ak baayam bi ñu tëdd toon moom du doon juddoo ba moom mu war a mun a ñoo toog bu bëggoon a xam nan la góor ak jigéen waroon a tuddee dafa waroon a dem jëli baayam boobu ak ndeyam ñi ko saq ñi ko jur mu teg leen ci plateau de télé mu laaj leen mu teg baayam mu teg ndeyam ne leen papa yaay ah noo leen de ban position ngeen jëloon nan nga daan defee sama yaay pour mun a am pour mu mun a am plaisir ba man mu juddoo ci diggante bi nan ngeen ko daan defee ba moo naroon na doon ay émission voilà ce que Macky Sall a créé dans la société dem leen ci TikTok ngeen xool la société que Macky Sall a créé au lieu de créer l' entrepreneuriat jàngale xale yi ci formation dugal leen ci métier jàngal leen ci formation jàngal leen ci benn formation léegi doomi sénégalais bu yeewu day formé wu nan lay def lan la war mun a sol formation sexuelle bi sénégalais doomi sénégalais ci entrepreneuriat boobu lañ nekk il a voilà la création de de de du gouvernement de Macky Sall sàcc la fen sos jaay doole tëj rey bu desoon ci pompom bi may cagatu bi boobu la créé ci biir Sénégal léegi kenn jombatul toog fen ñëpp di la xool yaa xam da ngaa béjaaw yaa xamul béjaawuloo ruusoo sañi nga dëkkal ci waa sa waa ko ñi ruusoo jë ruusoo fen toog ci plateau sosal nit fenal nit koo xamante ne xamal loo ko dara ci aadama awa nga jóg ci plateau bi dox ndànk sol lu rafet jóg nga sangu solu ba nga naayis xeeñ sa lu neex taal sa oto nga dawal ndànk ba nga egg ci buntu ci buntu euh, euh, euh, kii télévision nga dugg ñu ubbi la plateau mu lee la que yow plateau bi ñu ne invité nii li soxlawuñu la dara du dul pour ñëw nga ñëw nga toog nga fenal nit sosal nit yaa ngi dëgg yàq deru nit parce que lan la benn cinquante million wala benn air plus wala benn auto huit huit la wala benn auto quatre quatre lañ la jox wala passeport wala euh, facili euh, euh, facilité lañ la évacuer lañ la sam njaboot yi yëpp dugal leen Europe kenn jombatu ko moo xam ku be jaaw ki moo xam koo xamante ne que karaw bi daa ñuul kukk ba li ni taatu ci kenn jombatu ko dem na sa ba fet léegi sosal nit yàq nit tuumaal nit jaay doole bi ñu dem ba ñu banaliser ko dem leen ci TikTok ngeen xool bu ñu demee ba Sénégal nee ñoom léegi kaa la ñuy traité ay kaa awra rek la ñuy wax nga gis doomi sénégalais bu jël numéro téléphone am def ko jël adresse am def ko ne boo buggee position bu neex loolu nam ma ci jigéen wala nga nam ko ci góor boo duggee boo jëlee numéro bi boo ko composé nga wax ma fan nga ne wala ma ñëw ma fekk si la loolu yëpp mi ngi ci biir TikTok bi te ay jigéen ñoo jur ñooñu am nañu ay kilifa am kër ndey am kër baay am kër maam ma ne ko cam voilà l'héritage des douze ans li fi Macky Sall la liggéey ndaxte dëkk bi nga xamante ni que ni dëkk bi mu ngi liggéey jaaro dëkk Sénégal dool na moo raw sa Philippines ci cagatu Sénégal tey moo raw sa Costa Rica ci cagatu senegal tey li nekk ci caga ci biir Sénégal nekkatu sa Brasilia li nekk ci caga tey ci biir senegal amatul sa Nigeria amatul Sierra Leone amatul Côte d'Ivoire ñag yi ñoo ko commencé woon bi ñu demee ba ñu attiré ci ñu ci bëggoon ay appât woon ñu teg ko ba ñu commencé monétiser seen page yi ñoom yëpp ñu ngi ne ñu ngi créer seen entreprise di def seen entrepreneuriat di concurrence ku ci nekk ngay gën a tabax ku nekk di jéem a tabax looy tabax moo xam bu ne da ngay tabax wala entrepreneuriat ngay def wala da ngay tabax brique su ma nee tabax dafa bëri façon. sénégalais yi sénégalais yi dugg ci ñagi yooyu ngeen di gis ñuy futteeku ci ah, ci ci sociaux yi caga ñag yi dëggantaan affiché tuñu seen i numéro ci page yi sénégalais yi ñooy affiché sénégalais yi la ñooy affiché léegi Voilà l'héritage que Macky Sall a laissé. voilà l'héritage que Macky Sall a laissé dem leen dans les différents hôtels yi ngeen dem ci boori géej gi man dem naa 2022 dem naa lekk au au au la mer xaw ma ngor lañ koy waxee xaw ma naka naa euh, place la de Dakar la fu ñuy jaayee les plateaux de fruits de mer. dama am doon nag nit ñu toog nit ki jóg dem aux toilettes avant avant revient am na waa ju ma accosté di ma laaj si j'ai besoin parce que daf ma xool rek il a compris te dañoo xam ku ku ku nekk Sénégal ak ku jóge bitim réew ils sont pas aussi fous que ça il est venu m'accoster pour me proposer ses services pour me proposer ses services ay ay góor yoo xamante ne dañuy xëy sangu ba set sol seen yi rafet amuñu xëy amuñu gont jàng dawal oto bu ñu xëyee benn vingt cinq mille la ñuy jël wala benn cinquante mille eh Pape eh, Pape Omar Dia nuyu naa la bu bëre bëre l'homme sans limite Matar Sonko nuyu naa la bu bëre bëre dem louer il faut rentrer dans des garages dem louer ay oto wala gis seen benn abi kooku abal abal leen oto oto boobu dafa ñu doyewuñu ko dara à partir de à partir de 16 heures oto boobu la ñuy dugg sangu ba pare parfumer seen bopp yaa ngi dëgg di wër jeeg nga xamante ne que ne amuñu amuñu jëkkër wala seen jëkkër yi bëggatuñu am jëkkër. ñi leen di ñiy yee ñi jaay seen i service di fanaanal ñooñu bu ñu xëyee ñooñu di leen jox xaalis yi moom lañ ci ñoom ci loolu ñuy kii ah ba ñu ñooy ñi yëkkati joxi ndey yëkkati jox baay ku jigéen ki tamit paare nga gis xale boo xamante ne que ni ndeyam amul sa lal bu normal bu muy tëdd kër baayam boo fa demee ba tey fii la ëppee Papa Omar na mën naa la torop essayé naa sa numéro benn yoon mais doxutoon de ดามาจีซอนสมัยนราสอดถึงมาแม่เรารมาแม่เราเลยจบุบากคำกับบุบากมาแม่เราเลยมันได้มันเรียนรูว่าแม่อะไรยศถุมาละมันาในสภากราบนักบุนักมาอย่างกสิดาวะน้ำมันอะไรตัวป่วยว่าบ่ไหเขามาดังมาบล็อกแค่เขามานั่นแหละฟันเดมบุญได้ดังมาเด้บล็อกดังเดังมาบล็อกแค่นั่งนั่นก็งมาเด้บล็อกแค่นั้นบอกมันเด้บล็อกแค่วันนึงกั็คำมันคำนั้นดังมาบล็อกแค่ปัจจุบันไอ้อะไรก่สองคนโดนนั่งโง่โดนนั่งง่มือดึกเลยมอดังก็บล็อกแค่มาดอฟอสขาระบ่มาไปเลยไล่มาพอมาเอ๊ลมซันลิบ fii la ëppee Pape Oumar bu dara jigéen ñi tamit paare nga am sa doom bu jigéen yoo amoo sa baayam amut mu xëy nekk ci appartement boo xamante ne que ne cinq cent mille six cent mille sept cent mille la koy loué par mois yore oto bu mu gaaree ci suuf a ah, si suba si yëpp da koy nelaw bongon à partir de 18 h ba le lendemain 6 h du matin dugg bi ni entrée sortie entrée sortie entrée sortie bu demee ba client yi nga xamanté rek que ak kala kiyam bi agenda bi client yi yépp mu paré leen mom mi mu taal otom dem na bu demut bu demut bu demut bu demut euh, kii nu mu euh, euh, euh casino di Cap Vert tàllal la mi ngi noonu di dem sali wala di dem hôtel eh, eh, ñoom hôtel Obama wala ñoom ñoom Bunti ak ñoomi seen ces grand hôtel foofu la ñuy dem boo toogee boo demee sali Portugal nga toog ci place bi li ma leen di wax ngeen koy gis ngeen xool les transage des des des des tubaab yi ngeen xool jigéen yi ñuy àndal nga xool suñu suñu frères yi nga xool transage góor yi ñuy àndal xanaa jëkkër boo koy uti sax na la màggee sax ay 10 ans maximum ay 13 ans 15 ans sax doy na mais da ngay xool kii nga xam ne que ni ku jigéen ki deux fois def na trois fois l'âge de de xale bu góor bu mu àndal nga xool ku jigéen ki tamit nga xool paa bi nga xam ne que ni fait trois fois quatre fois l'âge de de de l'homme lan mooy indi loolu ay njiit boot bot yoo xamante ne que ne xamuñu priorité bi bugguñu defar ngeen ko rek ne cagatu bi amul fii Europe. mais c'est organisé xale yooyu tey boo leen demoon fekk sax fu ñu toog sax boo leen newoon boole leen boo leen boo woon beneen liggéey sax ñu ne ñu bàyyi la ko société boobu la Macky Sall créé comme da ngaa ne da liggéey lu bëri ma gis say nit yi génn di toog ci plateau de télé di ubbi seen data yi di naan le président Ousmane euh, le président Macky Sall a fait beaucoup dans ce pays là leen di jox lan la le président Macky Sall a laissé comme héritage. pendant ces 12 ans là bi mu à la tête de l'État. donc qui, vous ñu une semaine deux minutes ça? Mais ko mu toogaat encore c'est kaw fauteuil présidentiel bon, ça, c'est comme si on continue à favoriser encore la prostitution de nos frères et de nos sœurs là dans les différents hôtels et différentes bars dans les différents quartiers de Camille Sénégal. C'est comme si on on continue à favoriser qui euh, euh, euh, nous mu l'infanticide yi di am de gauche à droite les les les comment dirais-je ay femmes dafa ko mel ni que koy jàppale pour jigéen ñi continuer di wërsëg ca ay saret ñii la di yéegal ci ay jakarta ak ñoomi seen les refus des malades là dans les différents dans les dans l'entrée des différents hôpitaux yi ñu am biir Sénégal man noonu laa ko gisee c'est comme si ñun dañuy ànd ak Macky Sall la di ko jàppale pour mu teg injustice ci continuer di teg injustice ci kaw sénégalais te pourtant il a tous les mécanismes pour mëna mettre Sénégal mu teg ci kaw yoon bo leen toogee ngeen ne Kaaw Macky daa liggéey li ma la laa leen di len wax parce que ñun tamé dañuy tok jël suñu un mois pour dem vacances te bu ñu démé on a bien profité tous ces bons endroits aujourd'hui là tu peux pas aller dans ces endroits là et consommer tranquillement nga ñibi sa kër on tamé met mal à l'aise di nga gis nit ku joggé fële nga jappé ko comme comme si c'était un garçon qui un serveur wala le le maître du lieu ndekete cagala moo xam bu góor la walla bu jigéen la dina la ñoo aborder proposer la service am boo waxee mu génnee nii léegi man foofu laa ko gisee man entre lu ma ci xam nit sa numéro sa entreprise sa numéro entreprise ngay distribuer mais caga Sénégal yi léegi góor ña ak ñi jigéen yi man foofu laa ko gisee dañuy dem di am di di di imprimer ay carte de visite ak seeni numéro de téléphone marqué la suite au cas boo soxlaa seen service nga woolal wala ki boo gisee kenn ci seen entourage bu soxla service seen service nga paas nga paas ko carte bi bi ma gisee loolu laa ne subhanallah fan lañ nekk man wër naa fu nekk ci àdduna li ma gis Sénégal gisuma ko fenn gisuma ko fenn j'ai connu le Portugal jaar naa Cap Vert jaar naa Guinée bi Conakry Guinée Bissau la Gambie le Mali Burkina Faso la Côte d'Ivoire Guinée Conakry Sierra Leone Nigeria Benin, Ghana Guinée équatoriale Angola France guy Italie Espagne Hollande Belgique Deutschland ba frontière Macédoine Hongrie j'ai tout fait ça États-Unis

pour mun a proposer seen sa joxuñu la carte de pour boo bëggee changer sa sa sa sa pneu bu crevé wala sa sa sa sa sa nga soxla femme de ménage wala nga soxla un homme de un homme de wala garde corps war reefa non seen service ah bu ñu xëyee ñu ngi ci booru jéeg bi bu ñu defee seen footing ba pare dem nañ dugg seen kër sangu nañ ba ñu pare boobu fekkee na oto ba ñu loué woon après une journée wala deux jours wala trois jours mi ngi taxaw di leen xaar waaw bu ñu paree ñoom xam nañu fan la ñuy dem ñu dem ñu gaare boo leen seene nga foog ne que ne voilà des gens fekk na que ne xëy ñu defuñu dara gars yoo xamante ne que ne font des plage en plage de bar en bar te li ma jaaxal Sénégal yan ngeen ne ay jullit ngeen est-ce que vous vous rendez compte Macky Sall le nombre de de de comment de marque bi nga xamante ne moom nga ye moom nga ubbi biir Sénégal nga xool Almadi Almadi bi ngeen koy bi ngeen koy créé vous l'avez pas créé pour les Sénégalais daal Almadies multinationaux yi nga xamante rek la ñoo basé biir Sénégal sous leur demande bëgg a foo yaa ngi dëgg lu ñu ñemewut a def fii yéen a nga dëgg moom lañ leen imposé yéen ngeen créé loolu ci biir dëkk boo xamante ne que ne c'est quatre vingt dix huit xaw ma quatre vingt quinze pour cent de musulmans ngeen ne yéen ay jullit ngeen ngeen président boobu di liggéey un président jullit li Senghor ñemewut a def Senghor nekk na fii créé wul Almadies Abdou Diouf toog na fii créé wul Almadies Ablaye Wade toog na fi créé wul Almadies y avait des bars y avait des rest y avait des restaurants y avait des des des pas comme si ci jamono Macky Sall parce que Macky Sall ministre boo fi gis am na auberge bu amulee auberge am na hôtelam bu amulee hôtelam am na ay boîte de nuit am amulee boîte am am na benn cagaam boo xamante ni que ubbil na ko benn baar kooku toog foofu wala mu ubbil ko discothèque ñuy joxe ay agrément partout. foo dem nga fekk foofu baarakalandoo yi moo tax may naan ñoom waa jamara xanaa ñoom bu ñuy wax bu ñuy bu ñuy doxantu waa ànd sàmm jikko yi boo leen di doxantu xanaa banlieue yi rek ngeen di dem ñemewu leen dugg almadi parce que li ngeen di dem di ratissé yépp doo leen dugg almadi xanaa te li nekk biir almadi amul fenn Almadi bi ñuy Almadi tout au début bi ubi ubbi Almadi c'est à cause des restaurants ñi ne à cause des restaurants ces restaurants aujourd'hui là ont été transformés ñi def ko des bordel mu do un quartier de bordel lay bo xamanteni ni que ni nek ci xolal every single day night and day heure bo ñëw ci ti vas tapé taper d'une pute bo xam bu goor la wala bu jigen la bo ñewé tes services seront plat drogue yi des seringues des capotes des traînées comme c'est pas possible façon bu ne ngay gis foofu ba nañ comme ba police Sénégal lu ñuy doobaraam yépp côté boobu duñ fay dem au contraire ils sécurisent même les gens qui ñi fa nekk nous ngi foofu def sa checkpoint pour protéger ces gens-là parce que foofu sorewul ak ambassade yi foofu sorewul ak ak ak ak les camps les camps militaires de ces différentes euh, euh, euh, comment dirais-je multinationaux yi nga xamante ne moo xam armée français bi la voilà tudd naa tur bi nag yàlla bi ñu jàpp vidéo bi moo xam bu yi la mooy l'OTAN entre ñoom la ñoom ñoo fa nekk moom laa lay wax noonu. lu ñuy lu ñuy tuxli lu ñuy jam seen bopp lu ñuy log lo xalaat rek ci lu bon rek am na fa façon bu nekk toxico toxicomane boo ko bëggee gis biir naka ñëwal ci quartier yooyu foofu nga leen di fekk moo xam doom bu riche bi la moo xam doom bu pauvre bi la ñëpp fay daje ngeen Macky Sall daa liggéey laaj la ñu dëkk ci quartier boobu munoo dugg ci munoo dugg ci lay les les réels là ndaxte réels yi moom la ñuy jël ñu jël ko transformé ko def ko seen chambre de passe yi da ngay toog ci restaurant yi ci kaw nga taxaw nii sëgg di xool ci suuf nga gis ñaar nit yi juutalante ci diggante ñaari miir yi Sénégal la am on voulait pas tout dire parce que suñu dëkk la il faut ñuy suturaal mais bu ñu leen gisee ngeen génn ngeen ne yéen amu leen yërëmande doo leen génn ci suñu bale bi ngeen dem ngeen bàyyi keneen ñoo toog pour raxasal ñun lii yëpp ñun dañoo am lu ñu métti moo a ñu toog tey il faut ma wax ah il faut ma wax dama naan dem bu ma ñëwee ma noppi daf may métti lool du ma xam fan laa koy waxee ma ne sama dëkk la bëgg naa ko foofu laa juddoo foofu laa am amuma feneen ndaxte sama kër ma am du sama kër sama kër baay mooy sama kër. comme sama keur baye bi ñono la te fofu ci Sénégal la bokk donc dama koy téye fofu la am fofu la gis da ngay dem ngay gis mëno comprendre da ngay tétaniser wu ci yenn ak ci yenn comport ci yenn situation yi do mëna wax waron na récupérer tous ces femmes là tous ces jeunes là jappalé len pour qu'ils puissent s'en sortir mais defu len ko affaire yi day commencé depuis qui université yooyu ngeen commencé créer des universités vous n'êtes pas à la hauteur de mettre ces gens-là sur le droit chemin créer des dortoirs loger les uns et les autres amul ben surveillant amul dara n'y a pas de contrôle n'y a rien du tout yan doomi sénégalais bàyyi def leen foofu comme en train ma faire yi di du di génn ñu bëri foofu la ñuy commencer du chuter ñu bëri foofu lañuy ñuy commencé yenn li nekk ci ay feebar ci des jeunes universitaires moo xam yi jigéen yi la ak yu góor amul feneen lycée yi ak collège yi lu ñuy dajale lu muy dajale ci ay lycée ak collège yi lu ñuy dajale ca ay feebar jigéen di nekk seen biir kër yi sa dajalewuñu ko léegi école yi sa donne plus toxu nañ ñu ngi ci quartier yi jóge nañ ci quartier yi léegi nee na dañuy delluwaat ci biir kër yi moo waral léegi ñoom ku ci nekkaa ngi ne la di di di di jéem a xool nan ngay def di afficher sa numéro outil photo jaambur boo xamante ni yow leer na nekk ne ko kooku du mus a juum mukk ba mu cliquer si sa si sa kii ñuy dem di di usurper identité des photos des des des des des Nigériens Camerounais yi ak ñag yi ñu koy jël def ko seen moomeel bopp def ci seeni i numéro téléphone pour mun a euh, se servir de ces photos là de ces vidéos def ko mu doon un sorte de appât lenn rek moo ci vrai mooy seen numéro téléphone bu ñu fay def. dem la ngeen xool le marché de la nudité yi am ci biir TikTok bi ngeen ne Macky Sall daal liggéey daal la liggéey koo xamante ne que ne seen aéroport bi da kaa da kaa tayle kenn moomu leen ci dara mu leen cee encaissé dara aéroport bi lu muy am yëpp ci ay milliards ci ay xaalis du amul benn benn rendement pour sénégalais yi TER bi ñu benn rendement air Sénégal boobu ngeen di dëgg ñi naan air Sénégal amaluñu benn rendement même les petits avions là yii di def des liaisons dans les différentes régions yi ak région entre régions yi ak capital bi nous apporte rien du tout dans nos caisses Sénégalais ñun dañuy contribuer au développement des pays d'autrui mais ñun notre pays est à l'abandon parce que lan la dañoo am ay njiit yoo xamante ne matuñu njiit ay fenkat lañu des mythomanes chroniques ay nit yoo xamante ne amuñu xol yërmande amuñu xalaat seen xol yi deret du fa daw seen silit yi deret du fa daw ndax xaalis la ñuy jël ñu jël ko ñambaas ko ñambaas ko ñambaas ko def ko ay silit obstacle yi mu ne kaay ma takk la maari musoo waaw dinaa ñëw nga takk ma dégg nga waaw yàlla nga takk ma dégg nga nga doon sama jëkkër xanaa da nga bëgg a aakim ndaakim ñoo rey la fii kajaa ko jaabi ni saafi nuyu naa la bu bëree allah dina la dóor de allah du nga am na ku may provoqué fii nee na naa ñëw mu takk ma ta fii ñëw mu yabam ok ñun aéroport bi moomuñu ko Turki, Turki nga xamante ne ñoo defal aéroport bi plus français ñoo nek di encaissé mafia bobu lobby bobu nga xamantene ne que ne ñoo ñom ñoo tax aéroport bobu am parce que aéroport Léopold Sédar Senghor dara dalu ko won pour mëna japp jël aéroport bobu mettre ko à la disposition de de de l'armée française mo waral Macky Sall toxal aéroport bi para para para para aéroport belé mu jël ko yobbu sénégalais fofu mel ni que ne les ectare bi mu njëkkoon a jël jox ko armée français boobu doyut mu jëlaat encore aéroport bi naa lay wax ne mën naa ne que ni le le le le ëpp genn walla ak li ci tegu jël na loolu yëpp jox ko jox ko jox ko armée yi li si des ñoom ñu paacoo ko seen biir def ko ay looloo looloo ñu paacoo ko seen biir. Abdou Badji Safi. ci mom lan lañ ci mom senegal wax len man dara li Macky Sall di naan dama liggey dama def li dafa am fuma yobbu senegal Macky Sall ba fuma fekkon senegal da daa dafa téye ci tank senegal tank senegal don yegg dafa amone senegal fu don yegg Macky Sall da ñoo téye tank senegal wacce ko la lay wax ni mu gas mu suulaat senegal ñin dinañu dund bañu dee boru senegal bi jeexut suñu doomi dinañu ñëw man sama doomi dinañu dund bañu dé dee boru Sénégal du jeex sama sët dinañu dund bañu joggé fi fii première sët dinañu dund bañu joggé fi fii boru Sénégal du jeex sama troisième génération sët ñoñu ñooñu bu ñu egsee dinañu fekk bor bi xawa a wàññeeku tuuti xaw da comprendre ngeen fi may wax ak yeen man Fatou mi di waja am sama 50 ans 2024 bi dina dundu ma joggé fi boru Sénégal jeexut fii 200 ans boru Sénégal du jeex lenn la ñu def pour épouser bor yooyu Ousmane Sonko ñëw mu toog ci xilaafa bi woo doome xaraam yi nga xamante rek la ñoo téye sénégalais yi xoj leen fii indiwaat mettre leen face à leur responsabilité xaalis Sénégal depuis 1900, depuis la nuit des temps yi ñuy confisqué dans les caisses de FMI yi ñuy teg fii cette banque mondiale yi ñu créé de gauche à droite plus banque de la de de de de France bu ñu bu ñu bañ a ne banque de France la mais ñu tuddee ko nee nañ ko euh, euh, banque banque de de l'Afrique de l'Ouest yéen nga dëgg loolu yëpp si la bokk ndaxte amul benn banque bi nekk biir Sénégal boo xamante ne que ne Sénégalais yi ñoo ko moomal seen bopp du seen crédit bi du société générale du leneen ak leneen banque boo leen fa gis. bu doonulee banque yi nga xamantene ne islamia arabe yi ñoo koy moom saoudia yi koy wala mu doon ñom nasaraan yi la mafia mas nasaraan léegi ñun lan lañu mom hôpital principal bi nga xamantene hôpital principal la ñun ñu ko ñun sénégalais ñun lan lañu moom yaa de ces bâtiments administratifs yi sénégal

on paye bu ci nekk liir bu juddoo tey sax il doit des impôts à la France Macky Sall da koy fayal impôt xaaral moo ba génnee la fii dëgg parce que bu ñu leen di war dëgg bi vous venez avec des insultes te man ay affaire de insultes bassesse yooyu dama kaa bàyyi sama ginnaaw damaa sëgg def nii mu jàll saaga man fa rege ngeen toog ñun lan lañu moom tous les batiment administratifs yooyu ngeen di gis tubaab yi tabax ko woon fii bàyyi ko fii dem seen yoon surtout colon colon colon colon français ba tey ñu ngi encaissé xaalis ci bâtiment yooyu te saa bu yàqee dañuy naan naka la ñun ñun ñoo ko war a réparer à notre frais ces bâtiments administratifs yi ñun ñoo ko war a réparer à notre frais tous ces bâtiments administratifs là c'est comme si on est des là On paye des locations à, la France. Parce que ces bâtiments-là, on demande, la France nous demande les, taxes d'habitation. Je cherche le mot, le nom. La taxe d'habitation. moo xam bu palais bi la ak suñu bâtiment administratif bi nga jëlee ko dans tous les quatorze régions yi fépp foo xamante ne que ne tubaab yi dem nañu bi ñuy dem tabaxoon nañ foofu kër gi ñu bàyyi ko bi ñu pare woon pour dem comme la le Sénégal n'avait pas d'argent Senghor jënd toon mënu koon jënd donc ñoom dañoo gis ni que ni ça sera sous location waaw taxe d'habitation bi ñun sénégalais yi ça sera déduit dans notre impôt te bokkut ak xaalis bi nga xamante ni que ni ñun dañ on le doit à la France mooy taxe coloniale bi nga xamantene kene ñu dañ ko négocier contre bop bu ci nek ba ci xalé bi wara ñoo juddo xalé bu juddo dañ la wara fayal droit de de de naissance. au lieu que ñom français di la ko fay comme ñom dañ koy fayé fi yaay nga xamantene dañuy jur sen doom ñun Sénégal xalé bu juddo yow xalé bi lire bi yow sa bay yaa ngi dëgg. da lay fayal ta taxe bu la ko fayal ne état Sénégal li mu la waroon a jox yow sa bàyyi jàppale la ko pour nga yow sa éducation ñu kii la ki da koy jël mu fayal ko France France la koy versé France nag yow bu xaj la yow sa bàyyi préparer sa avenir mais par contre li mu la waroon a sa bàyyi état Sénégal li mu waroon a versé sa bàyyi pour mu jàppale la pour yow sa avenir jag ak bosam moom papa ji mu mën a am bu baax mën a am nekk dans des bañ a nekk dans le stress muy sa waajur mu mun ngeen mën a jóg ci ci ci famille dans un famille boo xamante ne normal comme fii xam nga moom lañ leen di xaj mais par contre xaalis boobu saa bu ko Macky Sall la versé c'est des milliards et des milliards ci keesu waa France yi France par contre day jël xaalis boobu à son mu jël ko versel ko doomu yi nga xamante ne fii la ñu juddoo juddoo gu sax yow balaa ngay gis ci biti sa ndey dañ koy jox benn nampaay boo xamante ne pour massaw ko ne ko ni jënd ci ngum benn benn beurre karité nga diw ci seen digg li pour mun a préparer wu dañ koy nampaay ne ko ni jënd ci berse berceau nga jënd ci yére bu rafet boo xamante ne comme ça liir bi bu juddoo noo koy mën a accueillir rek nga mun koo accueillir te chaque weer dina ci génnee bu Sénégal fayee yeneen quatorze pays de l'Union africaine yi tamit fay parce que c'est pas seulement les taxes d'habitation là c'est pas seulement Sénégal qu'on paye ça

mais malheureusement il n'a pas été jusqu'au bout parce que moom tamit dafa am foo fait ne que ne bu ñu demee ba ci ak arrivé à un certain moment il a lâché prise on a été jusqu'au bout bi mu daqee armée Sénégal armée française bi mu leen C'est si la waroon de même basse. imposer la renégociation des des des des contrats miniers la renonciation des des des des des taxes d'habitation sur les bâtiments administratifs euh, franco euh, français que tu ci de dëkk bi. ben ñaar mu annuler les taxes versées par la euh, par par le comment dire par le gouvernement sénégalais pour les taxes coloniales nous mu annuler ko parce que c'est des milliards yi dugg ci caisse français tay ñun suñu yoyu xaalis c'est quatorze pays de l' francophone la xaalis boobu la ñuy jël tey di ko dund dundalee waa Ukraine yow doomi sénégalais yaa ngi ne la tëdd tey heure bi may wax ak yéen ñi ci bëri ci yéen amuleen sa li ngeen di reeree añ bi sax dëkkandoor bi moo leen ko tibbal Sénégal ngay nekk ci oto nga xool à ta nga xool à ta droite nga gis ku taxaw ci naaj di ñaan xaalis di yelewaan jigéen bu ëmb boot doom yore paan di liggéey foog nga koy gisee ay jigéen jàmbaar yi toog ci kaw trottoir di jaay depuis ci suba ba ngoon jot pour benn bénéfice de 1000 francs wala 2000 francs par jour ñi toog yow nga nekk sa biir kat-kat nga leen di romb di leen xool guddi bi jot nga ne xaar ma dem doxantu biir Dakar trottoir boo seen néeg la ci Sénégal di nga fekk ay nit yi fa lal ay carton tëdd à la belle étoile moo xam day taw moo xam taw moo xam day ngelaw moo xam ngelawut moo xam daa sedd moo xam seddut ngeen ne Macky Sall daa liggéey BTR daa mën a xi daa mën a daa mën a daa mën a daa mën a jox nit añ jox ko jox ko jox ko reer BTR kan la mën a employé BTP boo xamante ne que ñun moomuñu ko milliards yi ñu naan ni que ne moom la état dugal ci biir ci biir BTP duubul boobu laa xam ni que ni moom moom moom moom moom état Sénégal moom la amel tamit waa waa tubaab yi nga xamante ne que ñoo ko imposé BTP est-ce que ñun la la la BTP bi c'est à la demande des Sénégalais te ñun ñu am ay priorité soxla ay ay hôpitaux yi high class pendant que ñoom ñi ngi amélioré seen hôpitaux yi fii. di jënd ay hélicoptère di ko teg ci ay aérodrome ci kaw ay hôpital hôpital yi di doon ay plusieurs niveaux jusqu'à R plus vingt ay jusqu'au vingtième vingt et unième étage bâtiment bi da koy xool je ne sais pas combien de hectares combien de mètres carrés ñu jël ko def ko ay ay ay ay ay ay hôpitaux loo xalaat ci xeetu feebar bu ci nekk am na spécialiste bi nekk ci biir koo xamante ne que ni lay moom bu xëyee liggéeyam bi loolu la te ñoom juróom ba ñett i se dans tous les secteurs, dans tous les maladies confondues. Vous hôpital yi high class yi a une il, il y a ci yi il y a une dem il y a ci classe, doomi yi util doomi aadama liñ koy une liñ koy liñ pare dem util utal nañ ko hôpital te am na ay vétérinaire yoo xamante ne ñi dem ñi spécialisé wu tamit ci domaine yooyu di faj mala yooyu fii même Unku sax bi nga xamante ne que ne Macky Sall moom lañ ko tuddee Unku Macky Unku Sall dañ koy faj ndax am na ñi nga xamante ne que ne possède Unku si seen biir kër yi fii laa xamul sax dañoo ñëw mënuñu ñoo jàppale ñu dem jëli Macky Sall ci biir palais bi na mu mën a doon Unku bu mag seen biir kër yi loolu yëpp am na fii nga ne Macky Sall daa liggéey kooku nar a ñoo toog mu ne suba le 25. février bii rendez-vous bi le vingt cinq février bu sénégalais yi di deux mille vingt quatre bi moom daf ciy toog ci kawam daf ciy boobu amul kenn ci sénégalais koo xamante ne que pare lañ koo yëkkati def ngeen sani def ngeen sani mars pare ngeen heure bii fàtte ngeen sani da ngeen demoon mars vous parlez plus même de mars Macky Sall loolu la xamoon xam na ne que ne sénégalais en départ n'a pas d'arrivée vous allez pas jusqu'au bout parce que góor yi ñoo so góor yi ñoo amul suñu biir ñiy woote góor ñoo ñoo manqué suñu biir. góor yi mel ni góoru Mali manqué nañ ci biir Sénégal góor yi mel ni góoru góoru góoru góoru euh, euh, euh, nu tuddati kii Niger ñoo manqué suñu biir góor yi mel ni góoru Burkina Faso yi ñoo manqué suñu biir Macky toog mu ne moom daa liggéey jàkkaarloo ak journaliste yi amul benn journaliste bu ko mën a mettre fait face à sa responsabilité xabar ko ne que ne liñ fi wax yëpp ni que ne da nga kaa def ñun point yooyu Macky Sall dinaa ne que ne dafa defar ay point point yooyu xamante ne que ne c'était des milliards qui sont investis là dedans te milliards yooyu Macky Sall jëlul xaalis boobu fenn fu dul ci keesu tubaab yi fii daf ko wala dem defar point yooyu point yoo xamante ne que ne non seulement da ngay ñëw nga leb tubaab yi pour dem defar pont ñom ñoy décider da ngay def sa devis nga ñëw nga teg leen ko ñom ñoo lay imposer entrepreneur yi ñu wara a ñëw defar pont bobu pont yoy buñ ko defee ba paré yo xam nga ni que ne si la durée de vie de ces ponts là ne dure pas plus de 5 ans wala 10 ans donc pour cela veut dire que ni prochain président bi wara a tok bala balaa mu balaa balaa muy jóge ci ci nguur bi il faut mu defaraat les mêmes ponts chaque 10 ans ñun il faut ñu defar ay ponts te man dëkk naa fii.

mënuñu maa encaisser plus de trois cent et quelques par an ma fay ko taxe pour pouvoir pour le droit de rouler sur la sur sur le bokkut ak droit taxe pollution bi ak ñoom i seen ça n'a rien à voir pour rouler rek génnee sa oto ngay roule ak moom. ba pare man sama oto may may dugg may am ay nii d'oiseau ay nii ay nii ci ci kaw tali bi amul fenn. amul fenn ñu ne kooku daa liggéey dem lañ ci dem lañ ci marché yi ngeen xool situation jigéen jàmbaar yi fay fajar ak góor jàmbaar yi fay fajar di fay yendu ba guddi ba heure bi may wax ak yéen am na ñoo xamante ne que ñu ngi ci biir rang-rang bi di waaj di jubal pour ñibbi seen kër àggaguñu àggaguñu bu ñu eggee du ñu tal sa lekk noonu la ñuy demee di tëdd parce que xam nañu que ni suba 5 heures du matin foog ñu waajala bu ñu bëggee teel a egg teel a ubbi. indil ñu péage boo xamante ne amalul sénégalais yi njëriñ péage boobu lu muy dugal ci ay recette sénégalais nekk ñu di ko dundal péage bi amul courant amul dara bu safara amoon foofu oto yi takk amul benn bouche boo xamante ne que ne de ak ak ay extincteur yoo xamante ne que nit war na koo mën a utiliser pour mën a fay ay safara amul benn poste de pompier ci kaw ci kaw ci kaw ci kaw péage boobu autoroute boobu di nga commencé bopp ba bopp début ba à la fin doo gis benn benn benn benn benn poste de pompier boo xamante ne que ne doté de citerne ah ils sont là ñiy xaar wala mu am ay ay oto yoo xamante ne que ne ils sont là en cas de situation pour mun a ñoo évacuer gaaw pour pour que affaire bi mun a autoroute bi mel ni un départemental li ngeen fay li ngeen fay décaissé ci ay milliards demul ci keesu sénégalais ay multinationaux yi tamit ñoo moom loolu entreprise boo xamante ne que ne du tuddul du entreprise bu momu du du entreprise bu faatu du mu may mu ne du mu musa du wareema nasaraan yi ñoo ko moom ñun la lañu moom suñu aéroport moomuñu ko avion yi fay daw ñoo ñun moomuñu ko ah ñun suñu train bi moomuñu ko recette bu train bi di def ñun moomuñu ko ñun suñu BTR bi moomuñu ko recette bu bi di def ñun moomuñu ko ñun suñu Dakar dem dig moomuñu ko euh, euh, euh, recette bi ba dem dig du ko def ñun moomuñu ko ñun suñu bateau biy daw Dakar Ziguinchor ñun moomuñu ko recette bi bato boobu di def ñun ñu ko avion yi di daw dans les différentes régions yi ñëw di Dakar ñun ñu ko recette yi ñuy dugal ci ci ci ci ñuy dugal ci li am noonu ci ay ay ay ay ay ci ay ticket ñun demoon ci sénégalais ñun moomuñu ko hôpital principal ñun moomuñu ko a cent pour cent dal rek la sénégalais amoon tuuti fexe ngeen pour que hôpital bi nga xamante ne que ne tubaab yi defar nañ ko pour ñoom ñi nga xamante ne que ñoom ñoo yor xaalis te ñu nekk biir Sénégal te ñun terrain bi ñun ñoo ko moom ñu tabax sa seen hôpital de dernier cri pour yàlla seen entourage moo waral ngeen jël Dantec ngeen teg ko fële ngeen bëgg a jël ngeen garde principal ak hôpital Fann Dantec ngeen saax saaxee ko jël 3 hectares yi jëbbal ko nasaraani multinationaux yi ba tey ñemewu leen waa ñan ngeen ko jox sous prétexte que ni hôpital bi da ngeen koy ñoo renouveler jël personnel soignant yi ak malade yi fa nekkoon sànni leen ci biti ñi commencé malade fa nekkoon ñi nekkoon ci wàllu ñi nekkoon ci wàllu dialyse ñi nekkoon ci wàllu physiothérapie ñi nga xamante ne que ñi ngi doon amoon ay maladie incurable ah ah ah, ah. ñi nga xamantene dañu amone ay malformation cardiaque ñi amone problème cardiaque ñi amone ay malformation yenen ak yenen ak yenen ak yenen mu jëbi mën na la né que c'est des centaines des centaines de morts yo xamantene que malade yoy ñoo dé génn nañ aduna gennol ñom yépp génn aduna ñi am moyen touti la sen mbokk yi jël yobul leen fenen pour ñu mën leen jël ñu mën leen jël en charge nga né yow da nga liggéey kaaw bakke yow nak ma mer lo daru mo sa génn mais ta heurté ma sensibilité qui a saturé mon cul en parlant vulgairement. Et moi, j'aime pas me faire saturer le cul. Surtout par un inconnu, un incapable, un fouillard, un stérile président. Un Boulimique, psychopathe, défergondé, soi-disant président. Ça, j'aime pas ça. Ça me fait sortir de mes gants. Ça me fait sortir de mon petit confort là pour venir me mettre face à toi. Pour te dire qui tu es. Parce que jusqu'à présent, nous ne qui tu es. On vient, on t'attaque, on t'attaque, après on s'en va. Moi, je te dis qui tu es. Tu n'es rien, tu n'as rien. Tu n'as apporté que dalle au peuple sénégalais. À part nous faire verser nos larmes. À part nous faire verser nos larmes, faire couler, décider nos veines. Fais couler nos, nos sangs. Ça, tu es capable de le faire. Le reste, que dalle. Non. Qui es-tu Que veux-tu au peuple sénégalais Que veux-tu au peuple sénégalais Qu'attends-tu pour dégager à la tête de ce peuple-là On te doit quoi On t'a pris quoi C'est quel genre de contrat que tu veux coûte au t'agripper pour ne pas laisser prise. C'est quoi ton problème C'est quoi ton problème Tu es devenu ridicule, pathétique, con comme une valise, bête comme, comme tes pieds. Vu que tu ne sais pas où te mettre, moi je vais te diriger direct dans une sas des personnes perverses, narcissiques, boulimiques que tu es. Parce que l'eau, c'est ça ta définition. mon critère pour moi, ça Mais tu es pathétique. Tu es ridicule. Comme tu as du mal à te fixer des limites. Ton entourage, ils ont du mal à te fixer tes limites. Tout le monde a peur de toi. On commence même à te considérer comme un petit dieu. Sorti, je ne sais pas, whatever. Moi, je vais te dire que tu es que dalle. Tu es que dalle. Je vais te renvoyer dans ton trou de sous-merde d'où tu as quitté pour atterrir dans notre palais présidentiel. Je vais te renvoyer là-bas. Parce que c'est faut que mériter. C'est de ça qu'il s'agit la souffrance du peuple sénégalais Dépasser ce niveau yo, bi nga bëgg a ñoo parce que yow à tu niveau t'as pas le niveau le seul niveau que t'as de la manipulation corruption mentir sauce ray gaïdole. doole très fort dans ce côté là mais pour nga jël sa bopp nga toog utiliser par exemple nga pas comme ce que tu dis par exemple moi, c'est le Sénégal considère-le comme le Sénégal euh, euh, attention de comment ranger la maison la décoration comment ranger les choses nga vous bu xam kan bu vous avez c'est quel genre de personne tu il n'a pas besoin que non une personne qui aime ranger qui aime avoir les choses à sa place non fais-le rentrer dans ta maison il fait le tour de ta maison, le patron de ta maison, il va te dire qui tu es. pas, même si tu ne le dis pas, il a déjà capté quel genre de personnage il a à faire. Yo, t'as rien. Tu n'as rien. Parce qu'à l'intérieur, tu es une coquille vide. Camoufoulé de haine. Un vipère qui crasse son venin sur son propre peuple qui lui a nourri pendant 12 ans avec sa putain de femme soi-disant de première dame soi-disant première dame ngeen toog ci kontooru xolu sénégalais yi nga jël sa taati réew ya sa pois bu bëri boobu bu bëri graisse bi nga nag fa dij étouffé ñëpp bëgg ñoo yóbbu laabu siina duñ la ko seetaan kaaw ba ke sénégalais nag dañ laa boole si sa jarbaat di man te te tey dama la mere bu baax ah mere naa la torop keroog ci sa dernière sorte bi man dama foogoon boo génnee nga sol sa bule boobu mel nii asamaan

à tourner, à tourner autour du, autour du pot, autour du pot, autour du pot, autour du pot, autour du pot, autour du pot, autour du pot, autour du pot Baga pare ñu Dap nga encore nga dem qui ne là la fi ah maintenant non j'ai compris ils cherchent des imbéciles comme lui waouh, qui vont venir s'asseoir autour de lui voilà pour venir encore Écoutez tous ces Sarabia qui va leur raconter, avec son air hautain, radin qu'il a, boulimique, psychopathe narcissique, pour nous Amen, maître Amen, oui Amen, Maké. oui Amen. Wow, tu vas chercher des complices qui vont venir t'encourager pour que tu puisses hein, légitimer cette prolongation à la tête de ce pays-là. Tu veux le faire passer par cette dialogue-là sénégalais ñoo la nee ne y' a pas de fucking dialogue bo mëna wax bo bëggé wax tu vas rentrer dans ta maison là là d'où tu venais là c'était arrière grand parents là tu vas c'est tu vas aller dialoguer avec les rats de goût là eux peut-être que ils parleront la même langue que toi peut-être ils ont quelque chose à tirer damaa gisul ban sénégalais mo bëgg wax ak yow t'as quoi à leur transmettre yo amo expérience yo mëno liggéey xamoo liggéey le mot liggéey donc koy dëkk yow tu es sous nous ton propre terre ton propre pays aux multinationaux yow da ngay lépp gannaaw la Sénégal bi yëpp ñun moomuñu ko. ñu ngi def ñu may defaraat ay pause publicitaire dañ ma bëggoon faire defaral pause publicitaire Facebook moo ma bëgg faire defaral pause publicitaire man kañ la Facebook monotiser sama page ba bëgg maa defaral pause publicitaire doole ma si jàppale ah mi ngi nii mu ne ma pause publicitaire votre vidéo contient une musique euh, contient contenu musical audio ou vidéo qui pourrait appartenir à quelqu'un d'autre Par man musique moo fi nekk hein? waaw mooy dañoo signaler live bi kon suma ma paree rek facebook téye live bi gaay yi signa kii leen ko signaler nañ ah. depuis au début dañu ko signaler mais léegi c'est c'est clair ñu ngi signaler xam naa dañ ko signaler pour contenu musical xam naa ne ci loolu la ñu bëgg a jaar noonu léegi ma leen di ñaan yéen ñi fi nekk enregistré leen comme ça léegi boo leen enregistré ah mu mu balaa ñu koy balaa ñu koy balaa ñu koy balaa ñu koy kii bloqué live bi fekk yéen jël ngeen partagé leen au maximum tamit képp ku partagé wul tamit ma paree laay boo ko bëggee partagé doo ko mën a partagé parce que signalé nañ ko ba pare li man wax laay bi boo moytulee bu ma paree laay tag dinañ ko téye pendant quelque temps quelque quelque temps après ñu bàyyaat ko li man maa leen ko wax jot naa message baa ngi nii ma yor ko le message est message baa ngeen ni ma jot ko xamna naa dañoo signaler signaler signalé façon signaler bu nek Facebook nangul dag live bi léegi ñu ne ñu ne Facebook affaire de euh, musique la mi ngi ni cette vidéo contient du contenu musical audio ou vidéo qui pourrait appartenir à quelqu'un d'autre loolu lañ ma bindoon mi ngi ni ma jàkkaarloo ak moom parce que lima lima li di wax la xam nga boo laalee la wuti doit toucher la loolu da la di da la di saturer loo fu nek ni fu kari? nii dama nek di len ko maa leen koy suba ji len ko sabaj seen xol ba nga buruj baraj den façon bo xamanteni ni mënon tay facebook live bi, da koy tey effacer ko do la lañuy def mais ma nga xaar facebook bu ko nangoon sax na xex ak facebook la lay wax ni fi ba xolal di si isi di procès pour mu delloo ba live bi duma len ko sétane ngeen yóbbu ko noonu donc c'est peine sànq ba léegi yéen a ngi signalé man maa leen di gis laay baa ngi fecce di def ay manière mais I don't care I don't give a damn def leen leen neex mais di ngeen ko dëkk lan nga liggéey sénégalais nee nañ la organiser l'élection moo d'ordre bi mooy une deuxième fois ñu ngi signalé waat jàppale leen ma waay gars yi aidez-moi ñu ngi signalé live bi vidéo bloqué xaw ma lu tax yéen da lañ koy gis man maa koy jot fii may la oh my god ñu koy ñu ñu ngi bloqué jaana jaana jaana jaana camara merci beaucoup ñu ngi koy signalé ñu ne pause publicitaire oh gars boo leen partagé wul te ñu ngi signalé live bi du am benn sens partagé wu maximum su ma amaatee même bu doon sans partage ngeen soove direct bi su ma amee dix partage bu eggee cent ngeen sauvé direct bi s'il vous plaît please man maa leen ko ñaan li may wax moo leen di métti ñu ngi bloqué sama vidéo bi oh my god mess léegi dama leen di laaj yéen sénégalais yi ma ñoo bàyyi leen sax parce que comme ñu ngi signalé nii xam naa ne bu ma paree vidéo bi dañ koy téye Khalil Sène merci beaucoup. sama numéro WhatsApp bi est marqué le numéro pour me joindre est la sur la page mais aujourd'hui je ne suis pas joignable ce numéro là ne fonctionne pas aujourd'hui dama xaw a tawat su ma live nii ba ma pare je pas prendre des des appels. en parallèle pour mu toogaat encore fii di wax il fallait que je sorte ah man c'est ces mots là li ma defar Sénégal j'ai tellement travaillé je pense que j'ai assez travaillé j'ai fait ça j'ai fait ça yow da ñëw cohésion sociale bi nga fekk sénégalais yor ko nga tas ko nga jaar fa ngay indil ñu ay problème indi waasoo suñu biir ethnicisme bi dugg régionalisme bi dugg religion bi dugg léegi la Joola n'est pas supporté par un Haalpulaar le Haalpulaar n'est pas supporté par léegi nit ñi dañuy taxaw sa kay di naan kële yow tëgg nga kay di ko naan man ngeeño laa kay di ko naan man geer laa man lële laa man lële laa naan man maa la gën a man sama région man Casamance moom ma daqal Dakar Dakar ne la borom Dakar ne la taxaw fële mu ne ma man Dakar moo ma gënal téeméer ñun yow yow miy dëkk Casamance wala yow miy jóge Fuuta wala yow miy jóge jóge fële ñun loolu xamuñu ko woon ñu ko woon dans le passé yaa ñu ko indi lii xamuñu ko woon ci sa nguur la lii yëpp feeñ nga jël saagakat yi yëpp dajale leen sa wet ñiy saaga te chaque jour every single day ñiy saaga di poste ay fen nga jël genn walla doomi sénégalais yëpp def loo leen ay fenkat nga jël ay kilifa yoo xamante ne que ne sénégalais yi dafa amoon fu ñu leen tegoon ngir seen jaar-jaar maam yoo xamante ne que ne ñun avec son temps arrivé pour un ça ça mal pour un bien gis nga fi nga jaar ak sëriñ sëriñ yi kilifa tarixa yi yow sa ñëw bi li ñu amoon fi ay sikki sàkk ci ay jiix ngaax leur concernant ak le passé yi ñuy bëgg di ñu gëmloo ci seen biir tarixa yooyu yow sa ñëw bi Macky Sall la yow xamuloo sa liñ fi def moo tax ma la yow sa tu es un mal pour un bien pour le Sénégalais parce que tey yow yaa tax ñi xam ñan ñooy sëriñ yi collaborateurs yi ñan ñooy sëtu collabo yi fi nekkoon ak tubaab yi ci jamono colon yi ndaxte ñooñu ñu ngi ci continuité li seen maam yi doon liggéey ak tubaab yi ñoom la ñuy ñëwee ci loolu la ñu nekk fépp nga jaar ok sama laaj bi xam naa bu yàggee mu signé ko mu ti mu mu kii ko mu coupé ko Facebook ñi ngi signalé rek Facebook ñi ngi signalé pour musique jàmbur xaw ma ban musique jàmbur laa def kenn déggu fi musique non xaw pas de musique su ma paree ma xool ñu ngi signalé rek Khalil Khalil Sen. marié ou pas marié ça te regarde pas on parle pas de de ma vie maritale yaa ngi understand on parle de la situation actuelle des Sénégalais suba ne da ngay dem voté loolu laa bëgg nga wax ma yow lan may ndayu yow nga toog ba tey lijjantewuloo sa sa dem voté bi suba nga ñëw fii di lijjante sama célibataire wala sama sëy loolu du sa problème du li ngay lijjante yaa ngi woon saa est yaa ngi may bu baax look my face man nekk ma fii di caaxaana ah. damaa am lu ma métti te damaa bëgg nga déglu ma man di la ko wax nga deug ko ya nga deug ça parle de l'avenir ok babaka please ok Yang nga Dong donc fu mu ni nii Macky Sall la bëgg xam mom fa la tek limuy def ni Sénégalais fan la ko tek ñepp ne tek Donc cela veut dire que le soumis, tout le monde va vaguer à ses occupations, il n'y aura pas d'élection, il n'y aura pas de vote, il n'y aura rien du tout. Donc euh, Macky Sall encore va gagner comme ça quoi. Le 25 février sera l'histoire de Macky Sall, ne sera pas l'histoire des Sénégalais, ce sera pas le, la rencontre des Sénégalais, ce sera pas le scrutin des Sénégalais. C'est encore Macky Sall. Encore Macky Sall. Moi gagné. Encore c'est Macky Sall qui dirige. Encore c'est Macky Sall qui continue à manipuler. Encore ce Macky qui va continuer encore à vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire. c'est Parce qu'il va créer un petit truc pour si on vous a laissé on vous a donné on vous a laissé marcher c'est pas pour rien veut donner une nouvelle image à lui parce que vous di leen nax sànni leen benn appât ngeen jàpp ci parce que peuple sénégalais moo peuple boo xamante ne il est facile à manipuler vous baissez facilement les armes Macky Sall Macky Sall Aïssa Aïssa Kébé nuy naa la bu bëri bëri Ali Diallo asalmi naa la Rabi Thiandoum nuy naa la bu bëri bëri libéré 500 détenus pendant ce temps là ñu ngi continuer di jàpp ci suuf plus muy libéré. place bu vacant ci bir prison yi le Macky Sall mënul sax ay Aïssatou tal Sall Zaki Zanet boobu dafa fen fen fen fen nga ngaama mi niro ni talon dal la man dafa fen fen ba ngaama mi kap japp prison sénégalais yépp fessal ko ay doomi jaambur pendant que lui se bat elle elle se balade tranquillement tranquille dans les rues de de l'Europe Comme la mais je pense que c'est aux États-Unis pendant qu'il se balade tranquillement tranquille en train de faire des shopping des narguer les Sénégalais Yo nga sa doom yi jëlee hors d'état du Sénégal nga génnee de ces misères là du Sénégal yóbbu leen hors d'état du Sénégal pour ñu dem dund leneen ak leneen ak pendant ce temps là jël nga prison Sénégal feesal ko del ak doomi sénégalais yi làq doom di dóor ay doom te yow nga ne jigéen nga sa ñaam yi départ sa ma ñaam yi développé ngay niroo garçon manqué man dama lay xool ba si yàggam sa foo ma góor sa foo ma jigéen booy wax damay naan nay ne mun na fenn fenn fenn fenn fenn fen fenn fenn bi elle manque tellement on dirait un narrasseur de dents dentiste yi ma xam ci àdduna bi yépp ay Tall Sall di man madame madame Zaki Jeannette moom moo ndax jigéen yooyu yépp fen nee naa leen fii waxaat leen ko ma ne leen par le biais d'un ministre boo xamante ne bu jege Macky Sall nee na ma Macky Sall ci ministre yi mu fi musoon na fal yépp jigéen yi mu fi musoon na fal yépp moo xam ci poste ministre yi la ak ñoomi seen le plus dangereux le plus grave ci ku Macky Sall que Macky Sall fal mu ne ma mooy Aïssata Sall parce que position yi muy jël de gannaaw ci débat bi ñu doon indi le sujet de Ousmane Sonko dans des dans le bureau de Macky Sall danañ koo waxtaanee jamono Antoine Pitax Dione dëgg naa les décisions et ak ak ak ak ak kii Ismaïla Madior Fall dëgg naa Aïssata Tall Sall les discours qu'elle tient orientation de débat bi nu mu koy orienté comment il essaie de mettre du de de l'huile sur le feu ci affaire yi. mu mel ni que ni benn sorte de haine bu mu gardeel Ousmane Sonko comme s'il connaissait Ousmane Sonko wala dafa am li ko Ousmane Sonko def comme si Ousmane Sonko lui a fait quelque chose daf ko reyal doomam wala mu lekkal ko taaw toog génn naa fii moo wax leen ko quand j'ai reçu cette information la wax naa leen ko fii ñu ne leen du nit ku baax manipuler la sénégalais yi manipuler Macky la jël million sénégalais yi woo gorom bi nga xamante ne moo takk jabar doomam bu jigéen gorom bu góor bi mu jël le marché des bracelets électroniques bii ñuy takkal bi ñi ci tànk mu jël marché boobu jox ko ko bracelet yi waroon a jar benn benn cent cinquante mille francs mu jaay ko à l'état Sénégal à cinq cent mille benn bracelet Macky Sall la génnee ay milliards ci marché des bracelets électroniques Bobu sa ministre des des des des des des des de la justice mu lolu ci pour enfourer enfourer la caisse de de son beau-fils et de sa fille pour que gorom bobu dans entretenir doomam bi. tek mafia ci kaw sénégalais sur les bracelets électroniques yooyu ngeen di gis ñuy takkal doom yi doom yi gore yi ñu waroon ko koo takkal takkal ko doomam ak sëtam yi moom ay sa taal sàll ak gouvernement Macky Sall yépp mais yéen doo leen rëcc boo leen rëccee seen doom yi du ñu rëcc bu seen doom yi rëccee seen sët yi du ñu rëcc lii man naa leen ko wax comme mi ngi mi ngi signalé sama live bi à chaque fois il m'envoie les mêmes kii di bloqué sama live di ko bloqué di ko bloqué la signal baa ngi répété wu damay yemale fii live bi ma lijjanti sa problème la on reviendra encore damay incha allah bu bu ma ko jot bi maye ok ñu ñoo ñu waxtaanaat encore ñi gën a xóotal affaire bi parce que il faut que ñu répété ko répété waat ko la répétition est pédagogique mais avec les sénégalais ce n'est plus la répétition il faut nga leen di taal daj di leen dóor ci nopp pour mun a déboucher seen tympan yi li ci lënt-lënt yi nekk ci biir mu mun a taal parce que boo leen bañee affaire bi dina débouché wu parce que loolu wax sénégalais actuellement lii jëm ci Macky Sall ça rentre à l'oreille droite ça sort à l'oreille gauche il t'écoute mais il prend pas il prend pas note il prend pas ab Macky Sall bu mu leen nax ndax bi dafa doy Macky Sall la na dem ah, bépp sénégalais boo xam foo munti bokk ci société bo muntu bok ak loy incarner ci bir Sénégal képp ku nap and ak Macky Sall ci li mu nekké ni di tokal bir Sénégal na sak nga te di ko layoo sénégalais fi nga layo ak sénégalais yomal qiyam te yalla ak lay xaar yalla ak lay xaar tamit ak ku mu munti doon nag sëriñ bu len kenn util ay lay di len jema outil util ay porte de de issue de sortie am nañ seen i jëmeñ bu ñu soxlaa woote ci seen ci ci seen i xawaare yooyu ñuy créer ci seen différentes tarixa secteur yooyu ñuy créer ci biir Sénégal dañuy génn ñu wax ci dañuy génn wax jël ay micro wax di jooylantu di lamsal ay bët di jooy jooy le deet di les seytaane di loxal ay baat di dërdërlu seen bopp gis nañ leen fii ku génn sama am ngay waxal jéem a xool lan ngay ne ay nit yi ñoo ñu jox leen seen intérêt moo leen di tax a génn léegi nag comme jël ngeen seen bopp jël ko ngeen toog jël seen bopp daal toog jàpp sénégalais yi di leen manque di jël seen deret yi di ko naan di ko naan di ko naan ba mu egsi fii sénégalais bu nangu léegi kër sëriñ yooyu ñi la fay lekk ñi la fay laa ñi la fay naan loo am nga xañ ko sa ndey ak sa baay nga xañ ko sa bopp nangoo ci préparer sa adduna ñoom ñuy gën a continuer di baax yow sa affaire yi nga xool fan la toll ci situation yàlla kër sëriñ tàng yi ne le yéen a ngi kër sëñ saa ngi nele yéen a ngi noonu comme yéen seen kër maam yi doyu ñu leen côté ndey côté baay seen baay yi seen ndey yi jor doyu ñu leen il faut ngeen dem uti bàyyi jàmbur ak maami jàmbur yi ko sa kaw ñooñu pri def ñooñu sa seen priorité di waatee ñooñu man ku ma waatal sa sa ndey wala nga waatal ma si sa tur sax ma ne ma naw la mais baamu jàmbur bàyyi jàmbur ku xamul yow sa ndey fi mu jaar ba ju ëmb la ba jur la man ma leen di naan massa sénégalais maa leen di parce que ce bu muy yàq si live bi di ko bloqué di je ne sais pas pour quelle raison xam naa signalement yi la donc on se donne rendez-vous suba wala fan yii di ñëw incha allah ndaxte lii moom wax dëgg yàlla métti na ba fu métti jot di masaw tous les détenus encore di masaw ñëpp nag détenus yi nag maa leen di dafa am ay détenus yo xamante ñooñu je vais les suivre de tout près parce que dafa am. lii laqatu seen lii laq jaxasoo ci bagaas yi waaw kadi kadi kadi kadi gu jaabi merci beaucoup umi umi mbay merci Rabi Thiandoum merci donc di leen jaajëfal di leen jox rendez-vous ci fan yi incha allah rabi merci beaucoup à tout le monde bye bye à très bientôt bye bu dee tamit gisuma la woon sax Aïcha Madiou merci beaucoup Ali Diallo merci gisuma la woon. parfois da ngay pare nga gis ñi lay yónnee message dina naan faa man maa dugg sa live toog fa ba mu jeex tuddoo ma sax di jéggalu ñëpp de di baal ñëpp ok. Lisa Conté merci Maam Fall merci beaucoup gis nga kooku sa gisuma koo woon Maam Fall.

Euh, ak yéen fas yéene ànd ak yéen waxtaan waxtaan woo xam ne tey jii daanaka sénégalais yi din ci am ay information yu baree bari ndaxte ki ñu dalal moo waral loolu di ndey Fatou Fall looluy turam mais liñ ko gën a ràññee gën ko xamee ci euh, Sénégal muy Falla Fleur ku ne Falla Fleur fàttaliku yu baree baree bare yu fi xew euh, tàmbali ci procès aji saar ba defe naa terme maintien rek <laughs> ci moom lañ ko doon euh, yàgg a dégg kon na mbégte tey dalal ko mu fas yéene waxtaan ak ñun nag wax ñu jaar-jaaram vécu wax ñu lu mu xalaat euh, ci réew mi ma ne Falla Fleur wala Ndeye Fatou Fall ban nga ci bëgg nañ ñu Falla Fleur. <laughs> alors kon Falla Fleur euh, d'abord ma jox la kàddu gi nga nuyoog mbokk ñuy seetaan ñu sóobu ci biir waxtaan waaw merci merci papa, mm-hmm. merci euh, ci li ma dalal damay euh, nuyu ñëpp di ko njëkkee nag samay samay parents. Mm-hmm. ma famille parce que dañ me soutenir. Mm-hmm. dañ me soutenir mën naa ne dans toutes les étapes de ma vie di nuyu aussi les patriotes vraiment di nuyu euh, Sénégal ak la diaspora di nuyu ñep ku lim rek juum. donc hmm. euh, ma ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp euh, voilà di nuyu ñep bima sa première sorte ba gënné ba légui xanaa wa waa kër ñoo la tëjoon <laughs> ñoo la ñoo la tëjoon la la dañoo sonu dañ ma rënkoon. dañ la rënkoon. <laughs> dañ ma rënkoon et aussi j'avais pas la voix j'étais malade quand même. parce que ah oui euh, bima gënné j'étais très malade nga xam dama perdre euh, sama voix mon wax et tout euh, mais aussi dañoo bëgg ñu jox sa sama téléphone donc j'étais un peu euh, du ma ni déconnecté mais quand même loin en fait de voilà quoi c'était important voilà donc aussi xam nga rek après boo génnee voilà famille bi y a aussi cette peur mm-hmm. l'entourage mën naa ma famille du ñoom ñoo am peur bi sax mais voilà il y a l'entourage il y a les proches qui appellent pour pour dire que non bumu waxat bumu bumu gennat bu le génnaat man leen non euh, loolu du man du man donc mm-hmm. euh, man ken mënuma comment dire ken mënuma ngalap euh, du sa nature en fait donc mm. après je leur ai expliqué et là ils ont compris ils ont compris en fait que ñu def ma noonu lolo moy man sama prison mais pas ñu yobuma ma liberté 6 wala ñu yobuma benen beneen kaso bu mu mënti mm-hmm. donc je leur ai expliqué man len man ñu bàyyi ma prison man lolou nekul ci man prison parce que mënuñu tëj sama xel mënuñu tëj sama xol mhm. donc jëmm ji rek moo fa nekkoon mais mënu ci man lu bëri te lolou duma ko bàkkuwee mais ci katunu yalla la yalla momo defal loolu te ma ngi sante sama borom bu baax mais dama leen expliquer keneen nak bu leen ma bëggee noppiloo bëgg ma tënk xamal leen ko kon nga may kon yéen may tëj prison Mm-hmm. mais de Macky mm-hmm. donc après voilà quoi ils ont compris. Mm-hmm. et voilà nous baillons. voilà et tout. comme tout le monde. voilà comme tout le monde donc. Euh, voilà exactement ah, ah, voilà donc voilà c'est ma mère en fait parce que. Ma mère, euh, je dis souvent que ma mère, c'est mon contraire. Ma mère, c'est mon contraire du côté de, comment dire... Euh, voilà, voilà, voilà, du côté de, tempérament. Hmm. Voilà, donc souvent, euh, elle me dit... Donc voilà, j'ai tout, voilà, je reçois vraiment comme on dit, le sang chaud en fait des phalènes. Mm. Donc ma mère, c'est un peu, voilà, c'est un peu mon contraire. <laughs> alors fatou mm-hmm. Alors Fatou, mm. Fatou, ce euh, mm-hmm. euh, euh, D'abord, mm-hmm. première question que je voulais dire, c'est que vous avez décidé d'engager ou Parce que nous activiste activistes. Mais il y a moi quoi qui déclenchent chez nous. Vous que dit que non, attends, lui, il faut que je bokk ci xeexu sama réew. Mhm, mhm. Euh, euh, lan moo ko suuxat ci yow. Mhm, man nag engagement ak man yaakaar naa depuis depuis xale la depuis xale la man nangu xeexu jàmbur sax rek laa dëkkee woon man damay damay mës naa fekk sax ñaañ ñi ñaañ ñi xuloo su ma gisee ni kii moo ëpp doole di ko di ko jaay néewal doole man damay jël xeex bi man depuis toute petite man je supporte pas l'injustice ça m'indispose man injustice bugguma ko man bugguma kuy jaay doole bugguma kuy néewal doole parce que man dama jàpp ni dama naan en fait. mënoo ni da na gëm yàlla mënoo ni jullit nga mënoo ni chrétien nga ak foo mënti bokk nga ni yow euh, croyant nga te fonkoo doomu aadama waaw parce que man ku bëgg doomu aadama rek man dama lay dama lay bëgg dama lay naw donc yaakaar naa ni euh, ku bëgg doomu aadama war nga engagé wu parce que fu ñuy fekk ñuy néewalee doomu aadama war ngaa mën a teew war ngaa mën a taxaw te xam ni yàlla dafa dafa warmaal doomu aadama hmm. dafa bëgg dignité humaine hmm. donc man euh, engagement c'est depuis que je suis toute petite je depuis que je suis toute petite, Amna euh, Mère Teresa, voilà, j'avais euh, beaucoup de surnoms quand j'étais petite. Donc, euh, malgré aussi, j'ai fait euh, des études de droit à, l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Mais d'une vie de mon professeur parce que dañoo xeex bi ma jàppee euh, xeex nañ xeex vraiment donc daf ma toucher, voilà daf ma laal trop ça donc ma def voilà des études de droit des études de droit niñ ko xamee woon pas léegi parce que léegi ñi gën def droit ñoo gëna mëna a mën a salfaañe ñoo ko wax maal voilà donc euh, voilà donc ma def des études de droit euh, fonk trop tamit droit de l'homme fonk trop euh, les droits et libertés sama réew toll ci ben situation bo xamné dama ni nopi waru ñu voilà ku nopi complice nga comme on dit y a pas de neutre hein y a mm. juste voilà on choisit juste son camp d'être du côté du peuple d'être du côté voilà de l'autre côté d'être du côté de la dignité humaine wala le ñuy les droits et libertés l'homme moo am donc euh, sama me euh, man nee naa taxaw parce que je suis patriote je le réclame au effort, je suis sénégalaise engagée donc euh, euh, patriote passif mais patriote ou patriote réew mi je je. parce que quand nga gars yi dañuy def amalgame. oui boo doon patriote rek ñu forcément parce que tu es membre du parti mhm. passif. Mhm. mais yow même boo un membre membre Pastef. Mhm. patriote pour le Sénégal. oui man en fait au moins carte membre passif. mais c'est l'eau j'ai fait exprès de ne pas avoir euh, une carte membre. de la wax lu tax parce que je me pas na fenn. Son côté, nañ ko injustice bi nga Japonais ne ne jàpp nañu ko rek c'est parce que da nga bokk Pastef yaa ngi comprendre mm-hmm. mu dem ba dañoo jàpp ni dëgg bi amatul far moo am te far amul dëgg moo fa dëgg moo fa tegu donc man à euh, mon ay temps euh, j'étais sur le point pour ma dégouer euh, mon cap mm-hmm. mais après j'ai freiné la procédure parce que je voulais montrer à, à mon entourage qui disait qu'en fait les politiques rek la man leen non man aw ma carte membre et pourtant il y a te gens bi ont yàllaa ko def mu mu Sonko donc c'est pas parce que am na ñuy xeexal Sonko que c'est juste de la politique politicienne ou c'est juste de la politique non c'est parce que qui ak yelleef la c'est parce que injustice la man dama ko faire a en tant que sénégalaise dama ko war a en tant que citoyenne donc euh, loolu moo waxal aw euh, ma carte passive. donc là, je suis devant le juge d'instruction Là, je ko devant la barre ma leen man du ma membre euh, Pastef mais bu dee Pastef tamit day xeex à li nga euh, la lutte pour la démocratie pour le patriotisme alors man aussi. mais nek nekk tamit membre Pastef du délit. non du délit monsieur monsieur nek nekk. délit loolu wax la ko laaj. oui laaj ma ko de laaj ma kon boo nekkul euh, euh, membre sympathisante nga. man leen non man dama len laaj pourquoi vous voulez en fait restreindre le patriotisme dans un parti pourquoi ne peut pas rattacher forcément à un parti si le parti passif, tay day day day wone patriotisme c'est tax tey nag ñu bëri patriotisme sen fibre bi donc dañ leen ko parti passif. mais je suis patriote parce que man sénégalaise là, je mon pays mm-hmm. donc ce euh, c'est pas forcément que je ma wara parti forcé forcément té aussi am carte passif du délit du crime mm-hmm. nek sympathisante euh, passif du délit du crime mm-hmm. donc le problème bi alors le problème B.